mooy sëriñ mais Lamine ay mbiram dinaa ko xoolaat. mais eh, Lamine lii la la. Birame Sakho. waaw Birame Sakho li muy filmé kenn xamul waaw Ibrahima Sakho na déplacé wu fu mu toog baaxul. tel ma tel ma la bañ pare Lamine mbër yi bañ pare. parce que sama mbër dafay métti am na samay fer waaye fer pare kii dafa war a samay fer yi samay fer yu wéyoo rek mu mu ko jël. xajuma seen diggante. waaw loolu mooy li ma amul lu ma ko jël. auditeurs yi ñu ngi leen nuyuwaat a baax di leen ziyaare fii ci arène nationale ter pala ma jama borom Pikine ginnaaw raay ak tali bu bees maa ngi nuyu yaa ngi rek maa ngi lay ziyaar bu baax a baax père maa ngi fay bu baax Mouhamadou Lamine di la ñaanal jàmm jërë amin di ko ña di ko sàkku ci yow doomu ndeyu Sidi Diakhaté waaw waaw maa lay nuyu bu baax di am contentement ci ñu dajawaat di nuyu suñu mbokk internet yi di nuyu téléspectateurs yi ci Lutte TV di nuyu famille lam bu baax a baax Lamine dañoo ñëw ci bis boo xam ne bis bu spécial la kan moo ko tëgg ah kooku mooy promoteur bu mag bu ñoo Diouf production boole ci xale yoo xam ne xale yu am talent lañ tuddee ko kan nag ah Wan Sow comme maa ngi ci géew bi père Pala ñu ngi wax ci ci géew bi diggante jeunesse ak màgg jeunesse jeunesse ah jeunesse mooy xale mooy xale ak Maguette Seck. Maguette Seck nag moom ku ñu ko tuddee war ngaa nangoo xeex. Maguette Seck numéro 2 ndax numéro ba jàmbaar la mën naa xeex. waaw moom lañ jàkkaar lool moom Maguette Seck. Maguette Seck lañ jàkkaar lool. yokkal ma lumière. bi mooy ñaata combat. bi mooy deuxième combat. voilà. waaw bi mooy deuxième combat man man maa ngi téye programme bu petit bi bay wax. diggante Maga Seck ak Serigne arbitre àtte na naani ndox Père Balla yaa ko doon wax ni koo xamul lu mu lamb waaw koo xamul lu koy jeexal songu songu koy jeexal songu bëre koo xamul lu mu mane boo rek koo xam ne xamoo lu muy indi bala moo jekk jaaxaan. waaw. song amul lu mu mënta maa la ko. xale yi léegi nag ñu ci mën a song daa bareetul. dëgg la ñu ci bari dañuy lijjanti rek mais mënatuñu song. dëgg la song mooy alphabétu làmb. dëgg la père. nee na waxal i o. song lañ lay njëkk a jàngal ci bëre. soo ko mënee rek sa la maa ngi profité di nuyu bës. ma nga foofa ca jam ñaajo. ah ma nga jam ñaajo. ah loolu laa yaakaar. ndax barki démb ñoo ànd bi muy dem moo ñu yóbbaale. waaw waaw. ma yaakaar ne kon ma nga fa. waaye fu mën a nekk daal ñu ngi nuyu bu baax baax. macha di nuyu nag ñi nga xamante ni ñëpp ñoo ñu seetaan ci waxtu wi ndax arène nationale dafa nekk loo xam ne amateur yi samedi dimanche. buñ fi ñëwul dañuy mel ni ku feebar. dëgg la gis nga tey tribune yaa ngi fee del xale yi ñëw ku nekk yaa ngi tuus ñii tëggkat yi nekk fi amateur ñëw ñëpp ñëw loolu nag dafa am solo ci làmb kon daal xam naa ni ñi ngi woon ci combat neex waaye dañoo dem bër bu ñu dellusee ñu waxtaan ci baax baax. loolu am na solo père Palla Mor Diouf borom Diouf production moo fi woo ci combat yu solo. boole ay xale waa Grand Yoff bari ci lool nag ndax kii toog suñu wet la jóge moo bëre premier combat bi daan moo bëre premier combat bi daan waaye deuxième combat bi mi ngi noonu plateau bi jeunesse la jeunesse. jeunesse. ak Maka Seck numéro ah, ñoom seen combat bi dafa xaw a yàgg. waaw waaw. dafa xaw a yàgg que ñoom ñaar. kenn ku ci nekk da nga xaw a téye sa bopp. waaw te làmb dafa am lu koy jeexal. waaye Habib Ba wax ñoom. waaye ñu Habib Ba wax ak ñoom. Habib Ba wax ñoom. ñu wax ay sixième. ay bi sible waat na jërë ngeen def mbokk internet yi da ngay lewtoo baa ngi noonu ci géew Père Palla doxala waaw da ah, ngay lewtoo rek ah door na de door na ko Maguette fayu na fayu na ah ah jël na ko génn na ko ah bi commencé na am beneen tour parce que ñoom ñaar xam nañ ni dañu war a jeexal làmb ji waaw ñu ngi léewtoo ñu ngi léewtoo arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre baa ngi wax ak ñoom ah ñuy xeex ñuy xeex ah ñuy xeex de ah ñuy xeex de. ah ka Sénès Sénès maa ngi fekk Sénès moo la xeex ba métti na de. xeex ba métti na xeex ba métti na xeex ba métti na. fii ci arène nationale ànd ak Dieng Mor Diouf. ñuy xeex ñoom ñaar borom Diouf production di nuyu mbokk internet yi. ndax dañoo commencé rek macha allah ñoom ñu commencé ñëw di seetaan wala ñu leen di ziar di leen ñaanal jàmm. ndax kuy wax kuy déglooy mbokkam Père Balla. ah ma ne kuy wax kuy déglooy mbokkam. waaw bu ñu lay wax su wax ñu neexee ñi ñuy déglu ñoo kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ndokkeel di nuyu nag ki nga xam ne mooy Djibi Ciss nekk ca New York ak Aliou Mané waaye di nuyu sama doomu Ali Diop nekk ca New York sama doom Aliou Diop bu Reug Reug maa nuyu bu baax di nuyu nag ñi ñuy seetaan ñëpp ci waxtu wi fàttewuma Alaaji Kan fàttewuma Modou Sène fàttewuma Leyti Sène Belo Ngij arbitre attewaat na ah arbitre leen di attewaat ah da avertir ñaari mbër yaa ngi noonu ci géew bi dafa mel ni kenn ki la ñu avertir mel ni kenn ki la ñu avertir ki féete waaw Maguette Seck góorgóorlu ci li ngay def ah oui bëree wuñu de dañuy léewtoo ñoom ñaar rek kenn bëree wuñu dañuy léewtoo ñoom ñaar bëree wuñu ñu ngi jàppante. ñu ngi jàppante ñoom ñaar. combat baa ngi noonu ñu ngi demante baaraam. per baaraam ah dañoo dañoo ndenge jante de. diggante jeunesse. moo leen féete seen droite. bëree xam-xam. Grand Yoff la jógee. kan lay bëreel ñu ngi ndenge ñente. Maga Seck numéro 2. maa ngi nuyu Birahim bu rëg rëg Naar bu rëg Ekiri Jaxaay. maa ngi nuyu bu baax. roofoo nañu ñoom ñaar war a tegante bopp. Khady Ndiaye la Lion ah mais ñii seen xeex bi de teguwul yoon de ah. Ah, ah kenn ki day arrière rek. affaire bale ñu ngi ci rek. nii li ñuy bëri teguwul si yoon. ñu ngi léewtoo boo xam ni àndul ak na waar. ngi lewtoo ñu ngi lewtoo. Maga Seck bëreeg lang lay bëre bëreeg lang. waaw moom dafa moom sax dafa bërewul nag wax dëgg yàlla moom day lewtoo di arrière rek non day lewtoo di arrière rek. kon laa mujj bu jeexee moom mooy perte. Ah, day perte parce jël na avertissement waaw adversaire am adversaire am dafa waroon dox ci kawam. ah oui waaw ne leen da leen di maa nga sec am nga avertissement jeunesse am nga avertissement jeunesse nanguwul jeunesse nanguwul ah bërewuñu bàyyiwuñu tur bëre dafa am lu jeexal tur xale day jàng songu jeunesse ak maquette bàyyil suuf si waay bàyyil suuf si moom la ko bi di suuf bokkul ci bëre ah combat bi wi jëm baaxul ah jeex na temps bi jeex na. jox ko victoire Père Balla. ah oui. na ko victoire. jox na ko victoire. kon Ténès am na ci kaw gi ni waaw ñu lay kan. waaye Jules Rungas. le relais de Grand. Jules Rungas. ma ne nga nekk. Jules Rungas booy Gandiol laa nekk. booy Gandiol écurie Père Magum. bii mooy sa ñaata combat. bii mooy sama deuxième combat. ñaata victoire. première victoire incha allah. Ah. première victoire sama première victoire. première victoire mais lamb ji ko gisee tey sa combat bi. sama combat bi man sax combat bi nekkul lu ñu liggéeyoon sax lu bëri si combat bi defuñu ko quoi sonnuñu si sax ndax combat bi dañ si préparé lu bëri bëri bëri bëri ba xam ne mooy loolu dafa métti macha allah. lu si sonn combat bi lu si sonn trop sax bilaay père dañ si liggéey loolu loo xam ne bàyyi après sax mooy loolu da ngay ne non non bilaay barke yàlla mais léegi foo bëgg a dem waaw fu ma bëgg dem sama morom yi ku ma jox rek ma jël ma bëre man xale bu ndaw laa 2004 laa judd xale bu ndaw laa bilaay di wax waa Grand Yoff kontaan naa si ñoom bu baax gis naa seen taxawaay jàpp nañ si bu baax a baax waaw di ñaanal Zarko tamit suñu mbëru mag bi xam nga lu ñu am tam ñu yëpp moom la moom la yoon bi moo yoon bi leer te yàlla baax na yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla fu mu bëgg a dem yàlla na ko fa yàlla yóbbu waaw di ñaanal tam sama père grand magum di ko ñaanal mu gudd fan mu fekkee suñu njëriñ ñu teral ko si làmb di ñaanal ay sama kosi mag père mag di ñaanal kii Michael di ñaanal 16 21 di ñaanal tam sama gars yi jàpp si ISRA bi ñoom Cheikh Tidiane ñoom Ali Sarr ñoom ñoom. ñom Abdou Bala Youssou Boy Niang maa ngi koy bu baax a baax ay ñoom Macky Sall gars yëpp maa waa koñ ba ñëpp maa leen kontaan naa bu baax a baax gis naa seen taxawaay di nga ma taxawoo rafet na trop kontaan naa bu baax a baax bilaay. jërëjëf jërëjëf. waaw jaajëf père kontaan nañ rafet. waaw waaw waaw léegi nag ñoo ngi nekk fi ak Calamber euh, mu bëre bu bu yàggul bëre bu mu ñëw fi seet si ñu Cal maa lay nuyu. ah maa lay ziar. waaw di la di la ziar bu baax a baax di la ñaanal jàmm ñaanal seen seen seen télé bi jàmm yàlla defal la jàmm may la gudd fan bu ànd ak wér waaw waaw comme ni nga ko waxee rek maa fi bëre bu yàggul maa daan. Euh, combat bu métti nga bëre daan mot mi ba saa bor ba mu naan ca la mbër da mbot. mais bii mooy sa ñaata victoire. bi may sama onze combats la huit victoire la am trois défaites. ba nekk li nekk. Dóor laa nekk. Dóor waar mi ngi fi amul combat dañ ma ko jox. ak kan. Zambala. ak kan. Zambala wala wala Fourière. kan. waaw baax wala Ndiaye Tine sax bu jógee tournoi jox ma ko per. ñaar ñi grand combat bi. waaw grand combat barke alxuraanu karim père wala grand combat bi ku daan di jox ma léegi looy wax say supporter waaw di woo sama waa supporter xam nga ziar ñëpp ziar waa jaaba lurbe sama dëkk ziar waa parcelle un ba vingt six waa jaaba lurbe ah? fuuta fuuta ah, waa jaaba lurbe di wax ne xalpulaar yi maa ngi ni ziar bu baax di wax ne bientôt incha allah ma ñëw fii wane sama bopp quoi di ziar ñëpp parcelle un ba vingt six ñu may jàppale sama combat bi ndax di ñaanal ñëpp di ñaan Sénégal yàlla na fa yàlla def jàmm di bëgg wax di wax gars yi dañ ma jël fii laa mujj peer ku ma jëlul daf maa ragal. ah oui seetaan naa. foo misaan laa daan fii kero waaw yaa may dégg peer. waaw. de misaan ku bu bëree fii sa Balla bëree ndigal. waaw bëree ñeneen a ñeneen. non daanaka bu ko warul toog di sommer. dëgg la dëgg ñu jël ma bu ñu jëlee bu ñu ma jëlul nii bu ñu xaaree ba si kanam day métti. dëgg la waaw dina ziar bu baax père. si yow ok di ñaan rëg rëg mi yàlla na ko may ndam. amiin waay ok oh. nga bàyyi ba ma jënd ak sama xaalis ngay doog a jënd tey. waaw. ñu ngi waaw di ziare suñu mbokk laayeen yi. waaw waaw. ci aaju bootaayu laay bi. waaw. di ci ndokkeel président ménager yi Bourkhane Wade. ak waa laayeen yëpp. ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax.

combat bu nekk ci géew bi di ñaari xale yoo xamante ni affaire ba sifle rek amul round d'observation amul dara dañoo jóg rek bëre ñi ngi léewtoo ñoom ñaar ñoom ñaar ñi ngi léewtoo léewtoo yu ñi ni tekk ne tekk ba si ñu commencé waat di bëre combat bu mën a gaaw comme round d'observation ñu ngi tooy ñu tekk ñoom ñaar ñu tekk ak Reug Reug avenir ak Reug Reug ah Reug Reug sànni na ko Reug Reug senior sànni na benn kurpeñ avenir a ngi lewtoo jiital tànku ndeyjoor Reug Reug jiital tànku ndeyjoor ah door na ko benn kurpeñ bu dal ñu kon ne di lewtoo Avenir ak Reug Reug Avenir ak Reug Reug ah yokku bañ na Reug Reug yokku na ko Avenir a ngi continué di xeex Avenir a ngi continué di xeex mi ngi xeex ah kurpeñ ja bari na est-ce dal na est-ce que kurpeñ dal na Avenir a ngi dóor a ngi door. avenir ak rëg rëg. ak rëg rëg rëg bari. kurpañ yi. xaw yi ñu ngi a bari ci lamb ji de. Ah, bari nañ torop. rëg yi bari nañ. atte nañ arbitre atte na. dóor rek. moo koy jeunesse. Reug Reug ak avenir. toogal toogal ci wetu père. Reug Reug avenir. maa ngi lay bëggee la ziar mon ami le grand terroriste Baye Djili borom italiano ber ber bala bëgg na maa xam nag cosaanu soow mi cosaanu soow mi mbëri xëppoo cosaan bi bëgg naa ko xam waaw xam nga lamb dañu wax culture te boo nee culture suñu réew nga wax ndëpp di nga wax ndaw rabin di nga wax ay simb di nga wax bëre loolu yëpp nag dafa ànd ak làmb waaye cosaanu soow daal dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci mbéy géey la gën a xewe waaye nekkul xëppoo woon xëppoo soow pour xëppoo soow rek déedéet xam nga mbéy lébu yi ñoo ko daan gem. dëgg sa foofu ñu demaat ci combat bi ñëw. bi demaat na. diggante avenir ak rëg-rëg. waaye rëg-rëg Lac de Guiers tamit war naa taxaw. ah. rëg-rëg ak Lac de Guiers combat war a taxaw la. waaw mais amaguñu promoteur. waaw ah jël na ko de. jël na ko rëg-rëg rëcc na. combat boobu en jeu. combat gënu combat daal boo xamante ne man li ma ci wax. waaw ñeme naa ko wax fenn waaw. force jël dara ci am. 4 appui 4 appui 4 appui. avenir 4 appui. 4 appui. tamit 4 appui waaw ñu lay fay père. mais. yow da nga match nul wala. man lañ jox victoire bi par avertissement ma daan ko. mais ni nga bëree. waaw saa nangul taxaw. nangul taxaw te xale bu ndaw laa waa gànnaaw ma yab xam na war ma ñëw ba fii saa ay lu wax si signature bi yëpp defu ko waaw. Ah, mbër li muy wax signature du ko def. waaw dama xam ne loolu waxu mbër la rek moom ak lu mu doon waxee quoi dafa waroon jëfe xam na dama mag la man xale bu ndaw laa demaguma fenn waaw dama ko bëggoon jàpp jàpp. mais eh, demaguloo fenn moo tax ngeen war a jàng bëre. waaw non man mooy loolu man bëre mu si man ber. ber dafa war a mën a song. waaw kii maa nga doon song ku taxaw ku taxaw doo ko mën a song waaw jëm naa ko song jëm naa ko jàpp ba sonn. ban écurie nga ne. man maa ngi si écurie Père Diaw. noon Vida noo ma yor noon Kassi Assane noon Kassi Bernard. mooy sa ñaata combat. mooy sama deuxième combat de victoire. waaw léegi fan nga bëgg a dem. man waaw gars yi ànd fii rek man xale bu ndaw laa gars yi rek laay déglu avant tout maa ngi sant waa Garaaf ñëpp ñëpp autorité yi kenn jàppale wu ma waa koñ ñoom si doon jàppale noonu Matos noonu Seer noonu Iba waaw noonu Cheikh bu Parcelles noonu Merega maa ngi sant sama yaay Ndeye Penda Camara bu baax a baax di sant sama ñaari waajur bu baax a baax a a waa Garaaf laa waa Offarina ñoo si jàpp bu baax a baax waa Boss Boy ñëpp waaw waa Sikor yi waa Gérard sama waa koñ nag xale yu na yàlla jeunesse bi rek noo ma jàppale noo jàpp si gi noo jàpp. foo bëgg a dem léegi. waaw man baax man maa ngi déglu gars rek gars yi lu wax rek ma joxoon nag ma dem. jërëjëf. waaw merci. yaa ngi woon ci avenir bi mi yaa ngi woon ci soow mi soow mi. maa ngi woon ci soow mi. booy xool lébu yi ñoom dañuy tuuru. waaw. booy xool mbër yi nga xam ne dañ daan ngemboo ci lébu waaw dañ daan soow. waaw te mbërum Ndakaaru la woon. waaw lébu yi ko seen bopp. waaw muy sotteekoo soow. waaw ñu koy woowee le tigre de Fass. ba tey sax nga mbërum Fass buy ñëw day indi soow. Ah. mais soow ak làmb dañoo ànd. waaw ndaw wax naa sànq ndaw ri ndaw rapide wax la ndëpp. loolu boo ci duggee rek dugg ci lépp kon loolu jàpp naa ni li indi soow ci làmb loolu ci la bokk. damaa gis mbër mu ñëw indi soow. ay birite la ay set léegi sax dañuy wayal. waaw wayalal sa bopp wayalal sa bopp yooyu yëpp mi mais daal soow ak làmb yàgg nañu. gis naa ñoo xamante ne mbuusu meew yu 100 francs yi sax la ñuy jënd. am na ñuy jënd potu ñoo sottee kooku. lépp sarmu la rek sarmu làmb mooy gàllaaj yi yi ngay ko fecc doog a dem nag ci volet sport bi muy bëri. ndax yow d'accord nga tey Reug Reug am combat def ci gàllaaj 15 millions wala 20 millions. non d'accord d'accord ma mu am combat sax def ci 5 millions ndax bu li mu xam li mu mën li mu def gàllaaj waratu koy jar muy jël 15 millions di ko def ci am na ku nekk ci géew bi ñi ngi daw di wis yor leket def ci saafara di wër géew bi waaye amateur yi wuy si nañu amateur yi wuy si nañu ndax boo gisee combat yi du combat yoo xamante ni combat yu mag a mag la mais amateur yi ñëw nañu wax dëgg yàlla am na mbër mu ne ci géew bi gërëm Catalina waa Harmonia Père Balla waaw. yaa ngi woon ci Reug nga ni. ma ni. waaw. li mu def ci làmb. su mu jaar ci papat amul benn mbëru li traditionnel Sénégal bu def li Reug Reug def. même Yékini. même Yékini. amul benn mbëru Sénégal ci wàllu li traditionnel li ci Reug def nga def amul. kon yow da nga jàpp ne daal. une lutte simple Reug Reug moom mooy le meilleur de tous les temps. de tous les temps loolu CNG sax indi na ko de tous les temps li mu def musu ko def ci li traditionnel. Ah. amul amul. moom sax dañ du Manga 2 amul. du Mama Lamine Sarr. amul. du Yaxya Joob Yékini. lépp luy teraangee lamb. ah bëre luy teraa ngay làmb ci bëre simple Reug Reug jël ko. waaw ni mu lëmbee ci bëre simple bi. waaw yaakaar nga mën na koo lëmbee ci bëre dóor bi. nañ ko xajal coow li yëpp mooy nañ ko xajal gisoo ko benn mbër bu ne maa ko yab ku mu ci fii ci bëre dóor teg na la loo xamante ni xam nga kii ndaanaan ba léegi jël bi ko saa lu ko metti te gis nga na mu ko bëree gis nga ful la jamu ja wone gis nga fay la jamu ja wone gi mu ji wone kon amul benn mbër boo xamante ni yàpp na Reug Reug ko xajal suñu ko xajalee dinañ xam ndax mën na def li mu def ci simple. sa soppe bi moom la ñu ah. nee na mu ngi jàkkaarloo ak yow di la seetaan kan la sëñ ah, kooku nag sama xarit la maam sama xarit cofeel sama diggante ak moom muy taalibe sëñ Babacar gëm boppam lool am yar lool am diine lool am fulla lool te lépp lu def ci discret la koy def. kooku nag moom la ñuy wax l'homme social. l'homme maa ngi nuyu bu baax a baax. waaw. waaw di am contentement. xoolal ma ñaari mbëri. waaw. ca géew ba. xoolal ñaari mbëri ca géew ba. ah ñu ngi lay ziar per. ah kooku nag mooy Alaaji Burxaan. ñu ngi koy ndokkeel ci aaji boobi. léegi lañ koy tudd ko ndokkeel ci aaji bootaayu laay kon ndokkeel baax loo wax te ma laaj ko kii. mooy président des ménages ndax yow. léegi avant muy ñëw. maa ngi koy ndokkeel. ci bés bi ci Lutte TV. ci aaju boo laay. waaye nag bala nga ko dafa am la wax sànq. waaw ci rëg-rëg. waaw te moom foog ma laaj ko ko parce que yow la wax ci rëg-rëg dañ naan ah lu wax ci bëy li wax bëy bu feebar. terwa tey boo ci waxee est-ce du ma wax terwa tax. waaw mais l'expérience fait la différence boobu laay waxee ki fekkee mbojj bi moo mën a nettali te nag dama koo juddulu ànd ak moom ci mbabban ànd moom ci lit avec frappe defar licence am kon lu ma wax ci moom am na lu ma ci bàyyi. te doo ko teg ci ay parparlo. ah non dem romb naa foofu yow fii la ñuy toog sama mbët di bëre ma reporté ko mu jeex tamit ñu xam ne maa ko engagé lomb naa loolu waaye daal lépp lu ma la ci wax ah li koy dindi du yomb. lépp la ci wax dañ koy faye bor. président ngo président ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. président de tous les managers président. waaw. ñëw nga ñëw bés bi. waaw ñu ngi lay bésu appel bi. waaw ci ndokkeel ñëpp nag. laayeen yeeg jullit yëpp ci bés bi nga xam ne moom la seen alimaam woote. muy woote boo xam ne woote boo am solo la. yàlla na ko nit ñëpp dégg ndax dégg ko mooy njëriñu àdduna bi yëpp waaye Lamine onze bi kalimaati laahi taamaati min sharri maa xalaq ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci bàyyi laay ak seedi ngi nuyu internet Lutte bi yëpp. di nuyu Beuz di la nuyu law law Lamine di nuyu techniciens yi ñoom amet ak ñëpp di wax ni senegal yàlla na fi jàmm wàcc. amiin loolu am na solo. Père Palla sa xarit la. waaw. Père Palla dafa am ci yow. doom bi ma tuddee am na trente et quelques années. bi mu la tuddee wala yow bi nga ko tuddee. bi ma tuddee moom am na trente et quelques années. gis nga. sama diggante ma moom daay fo. ndeysaan. ñun. mais Père kii. war naa am émission boo xamante ne règlement rek la ciy wax moom war nay def chaque 15 jours benn émission boo xam ne règlement rek la ci la ciy jàng. mais mais règlement moo tënk làmb xam nga règlement léeg-léeg boo ci dee wax dañuy dem ba defe da ngay contre mbër wala da ngay xeex benn mbër mais ñun tey làmb ji ñu ko mënee def ay règlement. yu ñu ko xaatim moom moo ñu mën a indi fii ba mbër yi ñëw arbitre a am kon bu nekkee président ménage yi maîtriser règlement ba ñëpp di ko rafetlu loolu yokkute ménage yi. léegi balaa maa waxtaan ak moom dañuy dem ci combat bi na la ñu rëbër combat bi. toogal toogal. ñii ñan la. beneen combat noonu caatu mokkal. ah. caatu mokkal ak caatu tund caatu tund. kan mooy caatu tund moo moo moo ngeen moo ngeen bu bi. ah arbitre bi la ne de. ak caatu mokkal. caatu mokkal ni mu taxawee baaxul. caatu mokkal caatu tund ba. caatu mokkal caatu tund ba. na ngay loxo yi te sol na ko benn loxo ba moom caatu mokkal. caatu tund bal na ko. wala boobu mu koy laale. Alaaji Ngañ Jaañ ñu lay nuyu di la ah caatu mokkal li ngay maye bari na. caatu mokkal ak caatu tudd ba. nañu ngemb. sëqante nañu ngemb. caatu mokkal li ngay maye bari na. mokkal ak tudd ba. caatu mokkal. ñoom ñaar jàppante nañu. jàppante bu yàgg. jàppante bu yàgg dañoo jàppante taxaw père pour xan borom les spécialistes dañoo jàppante taxaw maa ngi nuyu bu baax père Dégol mon ami père Dégol alaaji alaaji waaye maa ngi koy nuyu alaaji Malick Ngom El Hadj Malick Ngom la tudd. waaw maa ngi koy nuyu bu baax. ndeysaan. waaye nag di nuyu Abdou Kanji. Abdou Kanji. Magu Kanji Kanji. di xale bu baax. ndeysaan Abdou Kanji. un grand monsieur. ku discret la ku discret ku ah, yow wax nga wax nga li nga wax Abdou boolewul dara ak wax. waaw. du dugg ci lu mu xamul du wax lu mu ñu ngi nuyu bu baax. père lan moo mën a xew fii fii lan ak lan fi mën a am. waaw xam nga fi mu nekk nii ah ma ngi kal muy bañ booy xool borom ngemb lu xonq li mooy ndaama li moo bëre kee dafa lang rek dafa jàpp di xaar ñu fekk ñu ko gisoo ko dafa jàpp te bërewul ah woy ah woy dañ lay avertir kon kon bi dëggal na sama wax. dëggal na sama wax waaw dëggal a bëre. parce que moom dafa taxaw ndaamali moom mooy cherché mais moom toujours dafa xaw di défendre ñaareel bi taxawinam du taxawin woo xamante ni taxawinu songkat la wala mbër muy dem ah gis nga ko ndaamali ñëwaat na jël ko mu yombalal ko ko mu yombalal ko ko ah ma ngoy mooñ ma ngoy xëcc pour taf ko. Ndongo xëcc pour taf ko xëcc pour taf ko arbitre baa ngi wax ak ñoom arbitre baa ngi wax ak ñoom loolu ko baa ngi wax ak ñoom a ndem si yàlla maam góor gi Ndiaye yàlla ko yàlla jéggal waaye maam góor gi Ndiaye l'enfant na ko yàlla xaare àjjana ndaanaan loolu Dakar ah oui maam góor gi Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm amin xaare ko àjjana caatu mokkal ma ngi koy ah, mbot ña ngay mbotante ña ngay ngi nuyu Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye. waaw démb ña nga woon ca jàngi jéey. ndeysaan. jéey production dëkk kulub. kulub ca maa ngi koy nuyu moom jéey seen. di nuyu l'infatigable Abdoulaye Ndiaye. Abdoulaye Ndiaye waaw ñu ngi koy ñoom Alaaji Lawbe. Abdoulaye Ndiaye ambassadeur. ñoom Jibi Ndiaye. non moom mooy ambassadeur u Eureka. mooy ambassadeur u EDK EDK ah war na ko mën a nekk man maay ambassadeur u Kapay yow yow man waaw ah kon war nga ma indil sponsor de ah am nga am nga application bi am naa ko Kapay nag Demba Ka war nañuy gëstu de ah en tout cas daal non ah mais xam nga Demba Ka moom moom mooy sponsor leaderu Lutte TV non Demba ndaanaan la Demba Ka kooku kooku li mu yor yëpp si ne africain sénégalais la koo xam ni lépp loo yor sa réew nga koy delloo liggéeyal sa waa réew ku mel noonu mooy sénégalais bi sénégalais yi. kon yaa ngi wax sénégalais na ñu installé en Kpay. ñëpp nañu bàyyi yeneen application yi bàyyi yëpp ñëw ci Kpay. 100 pour cent Demba Ka moo yor lépp mooy def lépp. Kpay ca kaw ca kanam. kaw ca bu ñu jënd essence ñu dem ci EDK. bu ñuy jëndee naas nañ dem ci EDK waaye ku bëgg jolof ci kat. waaw ci EDK ku bëgg fii yu neex yi EDK ku bëgg yàpp bu e e toog fi nga toog fay sa facture courant wala sa facture ndox. kaa pay. wala sa canal. kaa pay. yónnee sa soxna. kaa pay. yónnee sa xarit. kaa pay. kon kaa pay. waaye kenn kaa pay. te kaw ca kanam. kenn du kaa am na solo per père père père père dafa am lu ñu doon waxtaane waaw muy soow waaw cosaanu soow fu mu jógee wax na ma ci mbay kay ndax lébu yi ñoo ko doon ëmb di ko andi waaye léegi dañu gis soow bari ci dëkk bi hmm. mbër bu ñëw andi sa soow parfois nga gis koo xam ne day xóoyal meewam rek andi waaw ñii di indi ay ñi ay set ak yeneen ak yeneen ndax loolu mënu ma ko tuddee ndax sa bopp waaw mën ne koo tudd nax sa bopp parce que boo jëlee benn nit medd fi sotti ko soow defal ko lépp ko fii boo amulee expérience amul capacité de lutte mënul daan kenn waaye nag boo jëlee koo xam ne dafa am entraînement jàng bëre ba mu bi yoowul soow deful dara soo ko mu nekk champion kon soo bi naa jàpp ni ñoom mën nañ leen koy tegtal waaye bariwul njariñ lool te nag il faut nit ñi xam ni gàllaaj yu bari ñun duñ leen ko tere waaye nag quand même nañ ko limité ba nga xam ni kenn. aywa combat baa nga ci daw na sonk moom caatu mbokkal. wala caatu dugub demande na. combat ba demaat na ëñ na ko. ëñ na ko ma ngi koy wëñ. ma baaxul daf ko taful. daf ko war a xëcc ba mu tafu ah. ma ngi koy mooñ de. mais caatu tund waay. takk ko. caatu tund ba. caatu mokkal li ko dimbali sax mooy mooy relance bi. relance am fi bàyyi. relance am moo ko fi bàyyi waaw. adversaire am tam il est waaw xereñam def na. ndaamale. ah xareñam des na. ah làmb ji mënoon na jeex bu yàgg. ah oui. fii lan am. fii xam nga fii moom benn loxo baa ngi ci biir benn loxo baa ngi ci ginnaaw boobu bu ko xëccee taf ko bu ko wàññee mbaa mu kott ko jël day am waaw ah, moom moo jàpp adversaire am jàppul jàpp bu baax kon moo war a liggéey balaa adversaire bi di liggéey waaw. seen bëre dafa limité très limité boobu mënoon na ko xëcc taf ko jàppante bi mën na jeexe ci avertissement combat bi mën na jeexe ci avertissement ndax li ñuy défendre dafa bari ñaari mbër yaa ngi ci ba seen làmb yàgg na ñoom ñaar ñëpp ku ci def amul benn impact li ñuy bëre bëre amul coordination bu baax ndax ku ci ne da ngay làmbatu rek li nga war a moo tax combat la boo xam ne mën na jéete ci temps avertissement bénéfice mën na jàpp waaye waaw yàgg buñ ko jigi diggante kontaan ci ñëpp bàyyi seen yite di jàkkaarloo ak ñun ci Lutte TV arbitre dana wax ak ñoom parce que seen lamb dafa yàgg. arbitre dana wax ak ñoom. lamb yàgg. mais jàppante bi jàppante jàppante bu bu doy waar la parce que ñoom dañoo défendre kenn ku ci ne da ngaa téye ndengeñ loolu nag day tëj bëre bi. waaw Adama Dia sniper bëreegul. mën na jeexe ci avertissement. billaay waaw ndax. waaye lii nag moom may moo ñu wàññi ko lee. père Bala waaw. père Mansour nee na ma demal jëli Ndiaga Ndiaga Thiam. mu ni. demal jëli Ndiaga Thiam ma ne ko naa ko jëli. ah Ndiaga il faut nga jëli ko. ku bokk ci gerte gi naan ci meew mi. ah bien sûr. foog nga jëli ko. Ndiaga il faut nga jëli ko. ku bokk ci gerte gi. jàppante bi dafa yàgg. Sniper bëreegul. ah jox na ko avertissement de. yéen ji match bi lañ jëm. avertissement. te ni benn avertissement la mais li ñu doon wax sànq bu xale yi mënoon bëre combat bi jeexoon na bu yàgg. waaw kenn ku nekk da ngay jot sa morom rek te action yi ñuy def amul benn bu jàpp ci mission moo tax nag école yi yi dañu war a ñu ñëw waaw parce que. door na bi war na mën a bëre doog a ñu jox présence ngay wane loo xamante ni yow da nga xam ku mën bëre ko def te boo xool quatre-vingt pour cent ci làmb xale yi ñëw noon noonu lañ mel doo ñu gis offensif wala kuy song song baax wala xeex bu baax bu ñu demee nag ba jaaxle dooma daan la ñuy indi. waaw xam nga tey jii. daw na song door na ko dooraat. Ah, ñoom Georges Martel seen mën a bëre wala ñoom Talla. da koy génne da koy génne da koy génne da koy génne. mais père lii d'accord ma ci nag lii bu génnee waruñu ko ci jox avertissement am na avertissement yoo xamante ne dañ ko war a xoolaat jàpp ni di ko puus muy bañ nga xam ne kii mi ngi bañ mais mënu ci dara bu génne nga jox ko avertissement. waaw ñoom boo leen waxee dañ naan sorti rek. nag il faut ñu ko. lamba jeex niil wala. te te dina de lu xew. am na lu xew de xaaral rek. jox na ko jox na ko victoire. waaw dafa am ñaar kay da benn kii am ñaar. noonu la deme moom xam na ko sax looloo. kontaan na ci ñoom ñiy bàyyi xel TV. Xadim Mbeng ñu ngi lay nuyu di nuyu Xassa. Pulo bi Fama Silla Assane Niang Alla Dieye Abdou Fall Kéba yéen ñëpp ñu ngi leen di bu baax a baax di leen siyaare di nuyu Adama Ndiaye. naka waa Yoff. Henri Michel Senghor. Balla wax dëgg yàlla appel bi tànku kanam la am amul tànku ginnaaw nit ñi dañuy gën a bari. tey jii jël xale yëpp yóbbu leen ñu jàng am expérience donc lépp li ñu doon wax nit ñi di ci am dut tey jii ñëpp nangu nañu bu njëkk bay boo mosaana wax naa Limaamu Yonent la dañuy wax astafurlaa tey jii nit ñi ñooy bëgg débat pour ñuy waxtaan ci kan mooy Mahdi loolu nag fes na actuellement fes boo xam ne dégg nga rek keroog sëñ Mbaye sëñ si Mansour la mu doon wax am ah, taalibe bu ko naan da ngay waxtaan te doo waxtaan ci seen alimaamu mu ne ko yow booyoo boo nga dem rocc sa bopp parce xamuloo ñu ne ko lan lan moo tax mu ne ñun ay sëriñ lañu te ñooñu ay yonent lañu xam nga loolu su sëriñ bu toll ni sëñ Mbaye Mbaye si Mansour waxee am na fu ñu ko teg kenn du fàtte altan salaam mi nga xam ne moo wax ni liggéeyal naa sëñ Touba ñetti junniy at sëñ Fallou jox ko paasu Màkka mu dem Màkka bu mu jógee Màkka directement jàmmalaay la jubal bi mu ñëwee ba xaajalee yoon wi pour dem ci xabru bi mu daal ne ñeenti malaaka yi ma bàyyi Màkka te te xabru yoon bi alayhi salaatu wasalaam ñeenti malaaka yooyu laa gis ci xabru Seydina Limaamu Laay moo tax nag Sénégal dëkk la boo xam ne xamuñu ko xam naa ne dinañu toog ëllëg ba xale yi gën a dajaloo comme ni ko Pàccir laay doon wax te ba ko sëñ Modou Kara invité ne ko ñun il faut ñun ñëpp moom ak Moustapha Sy ñu daal di révolutionner diine ji fexe ba ñun ñëpp jàng xam-xamu mag ñi jàng aussi li ñu mag ñi bàyyi. ñu ngi lay jaal Mamadou Diouf tey la woon sarax mi. wallaay dëgg la ah, ah, Pala Diop kontaan gi ma kontaan. di manager yi seen taxawaay ak seen pas-pas dajale seen xaalis génne ci seen kees boole kook la ñu dajaleen seen bopp yëkkati ko ànd ak benn délégation bu représentative Jaxate jiite ko ànd ak euh, président Lat Gueye bu Diourbel mu ànd ak ñoom Diallo Ndiaye ak ñoom Senghor ñoom ñëpp ñu dajaloo Pape Diagne Seras ànd ak Elimane Lo ak Khadim ñoom ñëpp ñu ñëw fa parce li tax ñu def loolu moo Diouf dañ ko joxoon avance mu génn àdduna promoteur bi xool lu rafet ànd ak délégation dem jaale ko loolu rek la xool ci làmb mais xëccoo yeeg xuloo yeeg yooyu yëpp ñun bu sañoon du ci làmb parce que làmb kat paa la amoon na jamono boo xam ne kenn joxu leen woon benn considération waaye liggéey bu baax bi nga xam ne làmb liggéey na ko commencé ko ci président Alioune ak ñoom Ablaye Makhtar loolu tey moo jur làmb tey jii ndax booba temps ay ñetti weer ñoo daan am combat ci année bi tey kii nag année bi dañ koy boucler ba du am samedi ak dimanche mercredi sax boucler nañ ko à ah, Alaaji Paal. dëgg la moo tax ñëpp lay ndokkeel ci bis bu bi ñu jóge di eh, jaalaat la aussi ah, kooku génn àdduna di ménager bu mag taxawaay ba rafet ku nekk def li nga war a def loolu day wone ni ab ànd dafa war a dëgër am na nit bu ñuy ànd dañu war a joxante cër. waaye ay nit bu ñuy ànd seen ànd dafa am lu muy jur. nit de njëriñ rek lañ koy doyee alaaji Paa nit bu amul benn njëriñ kenn du ko deg benn waaye sànq dafa am loo xam ni Lamine daf ko wax ci réglementation soo gisee ñun ñëpp ñu mën a ànd dafa am loo xam ni lu ñu tënk ñun ñëpp muy loolu moo tax suñu toppee réglement bi li nga xam ne loolu moo ñu boole dañ koy doxal ni mu waree te kenn du ci def benn paay suñu topp réglement nag day am anarchie ba tax kenn ku nekk nu mu ne neex ngay jógee waaye xam nga ne tey jii su ñu demee ba lamb ñu génn ci ay jamante ay béjjën ay door dóorante ba tey bañ damm ñu doog a taxawal seen combat kon réglementation dong moo ko waral. jërëjëf am na ku toog fi yow yaay kat. waaw rërëg bu dóor waar. rërëg yow dañ la non non daan ber. waaw ah, yow yaa daan. noo daane. maa ko la woon waaw. waaw dañoo mën nga daane. ci bëre rek. ma faaxu ko mu rob mu rëppale mon lii ko ma topp ko dama ko faaxu. waaw bii mooy sa ñaata combat. bii mooy sama quatrième combat. Ah. waaw bii mooy sama quatrième combat. ñaata ah, bii mooy sama troisième victoire benn match nul. waaw match. ba léegi ri nga nekk. Dóor waar laa nekk. waaw. bu faral léegi foo jëm. Ah, bëgg maa ci kaw bilaay looy wax say supporter looy wax say supporter waaw di leen sant rek waa ASM Grand Médine yëpp barki alxuraan ndax gis naa lu ñu sonnee ci combat bi lu mel ni grand ambu ah, ak grand Cheikh ah, ak Gofay ñoom Mariama Kaba ah, Ahmed Lo ñoom ñëpp waa ASM Grand bi ñoom Babacar ñoom saaro ñoom ñëpp di leen sant di leen gërëm bilaay walaay di leen gis naa ne jàpp nañ waa ñëpp Grand Médine yëpp bilaay li wax nañ jàppale seen di wax di waa taset taset séeréer waa fat si club taset séeréer maa leen gërëm bu baax di leen sant di woo Ngor Faye ah, ak waa taset yëpp ñu ñëw jàpp ci làmb ji xama rek mooy loolu seen doom jërëjëf waa jërëjëf permettre waaw Kandji ñu ngi koy nuyu bu baax Kandji production. ndax Kandji production wax dëgg yàlla ah na passage am ci làmb dara ñaawu mu toog ba créer société jël benn structure di ko ETDR Média mu am site internet mu am tamit beneen structure di ko ETDR event ñuy dëgg làmb keroog seen bi vraiment ñëpp affaire lu nañu te Kandji kat. li tax muy def loolu pour faire la promotion des jeunes des jeunes sénégalais ñii da leen di jël pour ñuy liggéey ci entreprise am ñi ci des comme lamb la ñuy def mu leen di ci appuyer ñeen ñi nekk ay promoteur ñi ci des nekk ay lutteur alaaji Ba la waaw xam nga Kandji ni ko baax la Kandji dafa sonn ci lamb nekk facteur de développement nekk koo xamante ni lu mu am rek indil na ko lamb sponsor journée yi ñëw di tëgg ay lamb jàppale loo xale yi te ñëpp lay woo amul xaaj ak seen ku mel noonu nag soo waxee wax ju baax ji ci moom war nañ koy mën a dëggal ndax xam nañ ni Kandji ku baax la. alaaji Pala Kandji moomu bi muy doog a dugg ci làmb dafa liggéey ministère de la santé lutte contre le paludisme di ko appuyer lutte contre la tuberculose booba nit ñi sax ku am tuberculose doo ñemee dem faju ji mais mu koy ventiler au niveau de la lutte ba nga xam ne kenn ku nekk soo feebaree da ngay ñemee dem faju ji mu nekk foofu ba yàlla dimbale ko mu am yeneen sponsor kon Kandji yi li tax ñuy wax ci moom dañ koy wax rek pour wan leen yeneen jënu sénégalais yi ñu xam ni senegal gii soxlawu lu dul ay xale yoo xam dañu am ay idées yu moom la li nga xam ne moom la ñu formé comme ñoom Modou Lo comme ñoom Boy Niang comme ñoom Balla Gaye kenn ko nekk yaa ngi créé sa benn société ci biir làmb ji ngay liggéey ba ngay dimbale say yeneen i morom. waaw lamb dafa ànd ak social. dafa ànd ak moo tax loolu am na solo trop. léegi maa bi toog ak ah promoteur bi nga xam ne mooy mooy borom àllarba yi Ousseyn promoteur Ousseyn maa lay nuyu. waay maa lay fay per Palla maa lay nuyu di la bu baax di kontaan ci yow di nuyu suma pap per Bourkhane vraiment di nuyu wal Lutte TV yëpp man li may demee jum waaye di jiital Lamine ak Beuz. maa ngi nuyu Lutte TV vraiment di am kontaan ci ni nga xamante ni moom la ñuy liggéey làmb ji gis nañ gis nañ participation bi mu def ñi gis innovation yi ñi koy gis kon mënuñu loolu sant Lutte TV di ko ñaanal fi mu bëgg a yem ci am yàlla ko yàlla yàlla ko yàlla yóbbale waaye ak ma borom mercredi waaye mercredi bii di ñëw nii la 21 laa waroon dëgg fii laa toogoon ci Lutte TV ñaan waa CNG ne leen comme élection yi amul bëgg naa jël sama lamb yóbbu ko le 24 vraiment ñu nangul ma ko kon fii laa war a toogaat seetaan leen ci liñ ma nangulee lamb ji pour moo def ko le 24 février incha allah moo def ci diggante ak ki nga xamante ni moom mooy Garga vraiment di ci gërëm bu baax Bira Sène ak équipe am ak euh, képp koo xamante ni yaa ngi ci seen yéedu rek maa ngi leen di sant ji demande bi ma leen ñu nangul ma maa leen ci gërëm bu ba di jox amateur yëpp rendez-vous le 24 incha allah 24 février samedi fii diggante sa Sadio ak ki nga xamante ni mooy Bébé Garga di leen ci invité nag di ci invité président des amateurs Père Bourkhane di leen ci invité Père Bala di ci invité lamb yëpp di leen wax ne Ouzin production mi ngi ci projet 300 lutteurs am journée boobu mooy sama sixième journée sixième journée ci projet bi kon tey ñi ngi demandé waat bu baax ñu teg ñu loxo jàppale ñu fi ñu bëgg a yegg ci ak projet bi fi ñu ko teg yàlla may ñu ñu mun ko mottali ak jàmm ak salaam di leen gërëm bu baax di leen sant waaye bu ma toogee fii ma bi dama koy gërëmee ki nga xamante ni mooy madame Dia mu nekk directrice yu li nga mooy arène nationale vraiment mu boole ñu ci staff bi nga xam te ne dañ koy liggéeyal parce que tey ku ne xam na ne bi mi ngi ji yi bu ñu dénkee sonorisation et chat dañ koy gërëm mu nekk femme bu femme bu jàmbaare rekk jigéen ju nangoo liggéey gis nañ innovation yi def ci arène bi kon ñun bu ma toogee fii en tant que promoteur dama koy saluer bu baax a baax di wax waa làmb yëpp ngi ñaan ñu dolleel léegi looy waajal looy waajal waaw li ñuy waajal mooy le 24 wax naa ko léegi le 24 février fils de Sadio ak ki nga xamante ne mooy bébé Garga moo war nekk sama sixième journée incha allah fii waaye boo gisee ma dugal la cadre madame Dia dañu gis innovation yi commencé def ci làmb ci arène bi te tam nit bu commencé liggéey mënuñu lu jàppale ko parce que am na équipe côté bu nekk mi ngi ci def ay jéego kon la dañ koy sant bu baax a baax a di ko gërëm di la gërëm nag yow tamit di gërëm père bu baax a baax. sant bu baax Lamine jërëjëf. Euh, Ouzin mii lu tax ñu war ko jàppale parce maa ngi ñëwaat ci combat Jackson ak Calki. Jackson ak Calki Jackson mooy kat moo ñu woon ginnaaw. ah Calki a ngi xeex de. ah Calki Jackson jël na ko de. Jackson jël na ko de. ah am na lu xew am na lu xew. am na lu xew na lu xew li tax Ouzin ñu war koo jàppale dafa am benn initiative bu CNG jëloon ci mercredi bi muy dem di ko tëgg continué moom mu gëm mercredi di ko tëgg ba yeneen promoteur yi sax fekk si ko ci mercredi kon dafa am loo xam ne audace lay laaj am na ñoo xam dañ doon wax ni soo tëggee mercredi kenn du ñëw mais tey ji mercredi am ak nga xam ni mooy Moustapha Mbeng ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale muy Moustapha Mbeng bu CMI ñooñu tey ji may nañ ko doole moo kanj production ba tax Ouzin tey di tëgg mercredi te amu ci benn problème en tout cas ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy ñaanal maa ngi toog bu mag bi di petit production borom la 18 maa lay nuyu. mais père lépp loo mën a xam bu dimanche ñu xam lam nga doog a tijji père bu dimanche ñu xam lam moo nga doog lu tax wax. cosaanu séeréer ak pël ngay gis cosaanu séeréer ak lébu. lay dajale lay dajale. père gars yi lamb ñu gars yi père man lamb damaa jaral de barke alxuraan lamb damaa ma tooñ amateur lamb damaa man ñëw ma ci lamb rek pour bégal exemple sama bopp dama ñëw pour bégal amateur yi père man lamb dama béyoo béyoo xam ne man lamb dama jaral man du ma du ma déggee lamb jot lamb rek laay gis si lamb rek laay nekk parce que lamb ma jaral kon man dama bëgg lamb père def ko sama biir deret wane nga damaa doon lampeer xam nga lu ma la sama samay nijaay dama fekk ñuy bëre comprendre nga père boo fàttale ko bi may teg lam 2021 ba léegi mosuma teg lam amateur ñëw bu ñu jéppi mer mais bu dimanche incha allah bu ma ñëwee Sénégal gëpp nañ teg seen bët dinañ gisal seen bopp. lan mooy innovation yi dimanche. artistes yi ñëw fecckat yi ñëw lébu yi ñëw séeréer si ñëw pël yi ñëw ñëpp ñëw barke alxuraan père man dama la bëgg a xamal man père man làmb dama ko bëgg wóyul père. na cee am ndax bu ñëwee ak ay mbokki naaram ñu jógee gàdd ga ñëw ak seen i tabala kooku beneen affaire la paale. nee na naar yi da nga leen a war tabala ñu tëggal naari Sogas. naar Sogas du ko jël spécial pour sàngal ko mu indi orchestre boppam naar dama ko jël spécial jox ko orchestre boppam orchestre boppam la mu tëggal boppam pour mu ñëwaat naar bu ñaaru naar bu woon laa a petit bateau grand kal xale la mais c'est un grand monsieur. borom Chine a ngi nii borom Chine aller retour lay def Chine bu day dem Chine dafa une semaine deux semaines dellu si waat. waaye nag lii mu tax mu baax mooy dafa gëm cosaanam du toog fii mukk une semaine te demul bawol ressourcé wu dellu si waat làmb ji mu wax moom la bëgg te jaral na ko lépp loo xam ne cosaan la ak aada dana ko ci def te ay combat yu neex lay tënk. nag père. làmb ji xëccoo bi bëri na coow li bëri nañ mais nan rafetal rek père yéen ay kilifa ngeen nit buy def dara xale buy def dara wala képp ku mën a doon na xool ñi nga xam ne nekk na ci làmb bàyyi làmb te yàquñu làmb père xoolal Mouhamed Ndao Tyson jaay na ci làmb bu bàyyi te Alaaji Petit Mbaye jaay na ci làmb yàqul te lay làmb père pour ñun ñun ñun desab ñun ñoo téye làmb père làmb ñun bu ko yàqee ñun lan lan lan lan suñu seet ak doom père lamb léegi gars ko commencé yàq ba nga xam lamb bëggatoo sax nekk promoteur. mais billet yi ñaata la. 2000 francs. xamul mais dafa yomb. xamul wala loolu. sama papa Aziz Ndiaye ak Ba Ndiaye Albourakh Sador danoo taxaw ci bis parce que man ku ma sant ku ma defalul dara ma la sant. yaa ngi tudd ñu baax Aziz Ndiaye Baye Ndiaye. ñoo ñoo ngi dundal lamb fi ñu toll nii. père man ku ma defalul dara du ma la sant père. mais Ba Ndiaye ak Sador Sénégal dañuy consommer Sador père. per diwlin Zador boo koy naan boo koy jëfandikoo per ak ndoxu Zador ataaya Zador per da ngay yow da ngay bëli waaw. ñetteel ba del del ci tudd Masata boo waxee Aziz ni Baye Ndiaye neel Masata parce ñetti doomi benn naar lañu kenn du def bàyyi kenn ci ginnaaw lii dañ ko def seen kilifa lii nga xam ne nag moom la Aziz def ak yow du lu duñu guléet Aziz day tëgg laa ma ne ko Aziz del tëgg lu yem rek parce que nit moom bul profitoo sa àdduna mu ne ma pourtant lii lépp mën naa ko tëgg te dem nañu ba mu wan ma ne ma carrément loolu mu doon wax yëpp dëgg la parce que promotion wu euh, euh, euh, kii bi Expresso su suñ ko su jaree ci biir dëkk bi grâce à Aziz Ndiaye ak directeur général Expresso. kon nag ñu ngi koy nuyu. ñu ngi koy nuyu di nuyu di nuyu Baye Ndiaye Alburax. moom dafa am njëriñ ci réew mi. réew mi ko soxla. ñu ngi ko ah Baye Ndiaye ab sëriñam muy Baye Ndiaye Baye Ndiaye xale la boo xam ni bu ko neexoon mu commencé yëkkati ay mag mais defu ko ba tey taalibe la nangoo doon te rakam magam jox na ko privilège yëpp waaye moom li mu bëgg mooy doon taalibe di topp ci ginnaawam lu mu ko wax mu def. kon ñu ngi nuyu Abdoulaye Ndiaye. waaw ah, Abdoulaye Ndiaye nag. l'infatigable l'infatigable Abdoulaye Ndiaye kenn ku ne gis na digganteem ak Gaston production ba mu ca demee. avancement bi nga xam ni am na ko malgré Gaston ca kaw la ma sa nekk waaye téye benn affaire mu nekk ci kaw du wàcc loolu Aziz euh, Alhane Ndiaye bokk na ci nga xam ne biir euh, Gaston production njëriñ loolu lañ fa am. sa kàddu gu mujj. père lépp loo mën a maay sànni ñëpp waa Petit production bi parce que père bu ma nekkee ci làmb yàggul yàgg na mais tey ma nee ba jeunesse bi wóolu ma am ci man yaakaar yaakaar bi yàlla moom tas. père lamb ji coono bëri na mais ku ne xam nga la mën père man damay lamb man foofu ma de père. waa père sant naa sama maman kadel naa baax tambiko king petit ñëwaat na. père sama retour ci lamb du yomb de. def lamb 2000 francs 2000 francs amateur beeg loos bi yëpp 5000 francs laa ko jaayee loolu li ko waral mooy sànni ko ci mel sunu maman borom tambiko. katalina tawa jigéen ju moom seetaanul ku mel ni Poro Lava seenu benn yoon doomu ay doomu réewam père père man maay sànni ñëpp waa man ñëpp jàppale nan ma barki alxuraan père su ma limee damay ju mais waa Ngoyali si la baax gis naa seen taxawaay Fallou Fall Touba mënu ma fay mënu ma wax ci moom dara waa Marais Pétersen père commerçant yëpp duñ may jàppale di ma ñaanal waa waa ñi nga xam ne mooy waa Sandineer maa leen sant di leen gërëm gis naa seen taxawaay waa Médina bi yëpp gis naa seen taxawaay maa jox rendez-vous ñëpp war a defee ay plateau yu gën a bëri sant naa leen gërëm naa leen mais kenn du falu fal Touba sama xarit naa ñëpp sant naa pël bu rafet waa Zaro sant naa kontaan naa ci ñoom kontaan naa ñëpp peer su ma limee damay juum sant naa Beuz gis naa liggéeyam li muy liggéey rafet li muy liggéey Lutte TV Beuz nit ku baax la Beuz jàmbaar la Beuz champion la Sénégal nag bëgguñu jàmbaar Sénégal ñoo bëgg nit koo xam ne rek da ngay toog benn côté te Sénégal dafa war a amay jàmbaar peer yi nga gis yëpp nit ki dañu lay jël dañu lay jël comprends nga nga de xel ñu teete la nga mag mën a nekk milliardaire comprends nga mais dara xëyul sotti mais ñooy sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox ñëpp rendez-vous incha allah dimanche dimanche di sant sama yaay sama papa waa dëkk ñëpp gis naa ñaani nan ma gën a ñaanale man de père man de ay eh, père lamb ji bëri na mais incha allah bu dimanche passé maa ñëwaat ci kontaan naa ci yéen naanaan kenn du yéen maay sant Pape Ndiol Petersen nat waa Petersen gépp sant naa leen sama mafia bi yëpp ñoom albes père dimanche solal barke alxuraan ke dimanche maa lay solal plateau bi wax de ko jël ci rek ah. dimanche maa solal na ko jël ci boo neexee yéena ah, dafa am lu mu wax ci Catalina Catalina nag fierté la waaye tamit Catalina fierté nationale la ndax képp kuy artiste wala ku ku bokk ci won na la boppam ci. di la teral di la teral ndib euh, loo am comme manifestation mu ñëw assisté la kon ñu mel noonu ñun dañ leen a moo tax nag fierté lamb la waaye fierté nationale la. jërëjëf. ay yaay kan. mama caatu tund ba. caatu tund ba ni nga bëree nag. waaw li ma bëree xam nga rek daa fekk na ni laa waroon bëree rek combat bi ñëpp ne woon moo mun ci combat bi ñëpp loolu la ñu waxoon moo mun ci combat bi ban ban écurie nga nekk. ah ban écurie nga nekk. Père Diaw Grand Yoff fa nekk ñu ngi koy nuyu. Père Diaw dafa sonn si ñun xale yi barki alxuraanu karim Père Diaw ak Coach Rassa ñu ngi leen nuyu maa ngi nuyu waa Wanda Foot waa Wanda Foot maa leen di nuyu bu baax a baax sama mag bu jigéen bi rugi maa ngi koy nuyu oto bu oto. bi mooy ñaata combat. bi mooy sama deux combats deux victoires sama mag bi rugi rugi ma jox léegi foo bëgg fa laa bëgg a dem ci kaw roi des arènes bu soobee yàlla mbooloo moo may topp rek albarka kayre laa albarka kayre seen kër gaz dafa explosé na ko waa làmb jàppale. loolu kañ la. loolu barki démb la gaz moo ba. amul moor. am na am nañu gaañu kay rakam bu jigéen mu ngi taale coma yaayam yaayam mu ngi taale coma ak beneen magam mu góor gaz moo fa explosé rakam bu jigéen bi daa amul tëb troisième étage. billaay wallaay nañ leen jàppale. am parce que nitul làmb la nan leen jàppale bu baax amaana waa làmb ñëpp yëguñu ko moo tax ma doon ñaan yàlla daan su ma daanee ma lancé message boobu nañ jàppale Albarka Kaïré waa Diourbel maa leen di nuyu maa leen di sant gërëm ñoom Tidiane sama paa yeeg ñëpp maa leen di nuyu bu baax a baax maa ngi nuyu sama waa koñ Poukus Dalbo waa Brak ñi maa leen di ñoom ñëpp maa ngi nuyu manam dem manam dem jàpp na sama combat bu baax manam dem maa ngi koy nuyu yàlla na ko yàlla fay xolam daf jàpp na sama bu baax a moo jëndal ay bologu billet Tamsir Soxna maa ngi koy nuyu di ko di ko di ko bëggee bu baax a baax Tamsir Soxna suñu papa la jàpp na si combat bi moom tamit maa ngi nuyu sama waa koñ yëpp di ñaan yàlla su ma amaatee combat yàlla may ma ndam maa ngi nuyu. aywa jërëjëf di la nuyu père yow tam di nuyu baay bi toog yëpp. merci. njaaga kuy njaag Père lu njiig njaaga kuy njaag ah lu leen njaag lu rey mbuum lu rey lu rey mbuum deefare waaw eh, lu njiig njaaga kan mooy njaag fa njaag nekk rek gaay nee na yow yaa njaag ah déet man du ma njaag kon Père Père Père Père Bourkhane mooy njaag Père Dégol du njaag mu ne kan mooy njaag lu ñuy njàng yow yaay loolu laa xamul mooy lan. mais bii mooy ñaata combat. kon père Dégol mooy aatu. waaw ah, mën nañ ko jox Dégol. aatu. mën nañ ko ko jox. Alaaji Malick ñu ngi koy bu baax a baax. di nuyu Monsieur Diop depuis Italie. manager kan la njëkk am ci laamu manager. manager ah manager yàgg nañu. manager ak jiitu Alioune ne ndax ménager yi ñoo fi jiitu Alioune Sarr ba lamba amee ba léegi ménager ngi. 163. récépissé bi 63 la. dañu am récépissé. 94 ci la bi Alioune Sarr ñëw. ménager am ak Alioune Sarr fuuf. ah 63 ci laa judd te ci la récépissé bi génn te avant boobu amu amoon na ay ménager. yaa ngi Alioune Sarr ku mag. Alioune Sarr man mi Alioune Sarr. mag Pape Diop maasel ah bien sûr. Alioune du gone góor ñooñu la. ayca Arlem la ak Sniper. non ñaari télé la jóge wala benn ak lu mën a Pape maasel. waaw Pape. combat ngi ci géew bi ngi noonu ci géew bi. Ah, dafay na regroupement des managers. ñëwal ci combat regroupement yi. Arlem ku ci nekk vert blanc nga ngemboo. xam naa dem ci combat ba pare. waaw foofu baax na foofu baax na foofu baax na. ñii ñan la. sniper Arlem. booy calki yamal. calki waaxu na ko. ñaari mbër yaa ngi noonu. sniper. Arlem lay jàkkaar lool moo xees bëre leen la ngeen waxoon signature bi def leen ko jokkaas na moom sniper sniper dooraat Arlem Arlem ñaas ñaas lay nurool sama xel dem ci Pam Morlo Arlem Arlem ak sniper sniper bëre wutay xeex sniper nee na bëre wutay xeex Arlem song la bëgg Sinaay. Ah, Arlem Arlem Cokkaas. mi ngi de. waaw Sinaay Arlem. li yaa ngi leewaatoo fii ci arène nationale ñu ci ànd ak Mor Diouf borom Diouf production waaye dimanche bi di ñëw petit promoteur war naa ñëw diggante Naar Sokaas ak ki nga xamante ne moom mooy Siteu Ngor ñaari mbër yaa ngi ci per paalo ma jama waaw ah xale yi ngi bëre waaw. ñuy bëre. ñaari mbër yaa ngi bu doy waar. Grand Yoff temps yi daa mel ni yéen jël paie ah. ñuy bëre bëre bu doy waar. waa Grand Yoff. déet déet déet di lewtoo rek ah ma ngi koy sëkkatal de ma ngi koy sëkkatal sniper. mais dafa mel ni daf ko bëgg a génne yi. sniper. waaw. sinaay. Ah, nga trois appui wala deux. wala tuuti nga def ko sinaay ah, jëlaat nañ la. jël na ko mu ko sinaay def nga deux appui jógaat ña ngay rokkas ci suuf. sinaay arlem sinaay en tout ah, mooy wuta daan. laa ilaha illallah da koy daan ah, boo ci rëcce xam ne am nga sëriñ boo ci rëcce ma xam ne am nga sëriñ ah, laa ilaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaha arlem arlem arlem sinaay sinaay ak arlem ku daan arlem arlem daan na sinaay loolu wax loolu la arbitre wax Lamine am nga liggéey am nga liggéey Lamine bul ko indeegu defal ndànk rek jël sa temps xool ko jël sa temps waaw waaw waaw waaw waaw ah catu ngemb catu ngemb catu ngemb ah. bi doy waar combat bi doy na waar waaye daal la ma la waxoon mooy Arlé moo doon wut a daan. moo doon wut. moo doon doon man la ma dal ko. laa ilaaha illallah. sniper ak Arlé. ñu calki calki calki toogal ne calki. calki mi lu ko dal. calki calki calki lu xew. ñu ngi lay. non tournel Jalki tournel nga jàkkaarloo caméra. ñu ngi lay nuyu. bi mooy sama deuxième combat. ñaata victoire. deux combats deux victoire. man de giri nga nekk. giri Père Diaw. Diaw rek ñoo bëre. bilaahi dafa di paa boo xam ne père bu baax la dafa di père bu baax bilaahi bu yërëm ndaw ñi. garaaf képp tey ku ci dem ba yàqu foofu tey moo lay récupéré yóbbu la ci écurie def la mbër def la champion père bu sonn ci ñun la wallaay moo krat sax ak grand frère yi fa nekk dañuy sonn ci ñun billaay wallaay duñ teg lu métti su bokk ngoon ku dégg bëccëg waa xar yàlla waa xar yàlla grand af yëpp maa ay ndaw lañ bugg suñu avenir bugg yoon nañu ñëw duñu jàppale bu ñu amee combat. kon duñ leen jàppale. léegi sa ticket ba combat bi jege si nga dem ñu delloo la say ticket. bilaay wal booy seeni cent franc seeni téeméer dañuy dajale pour mun laa jàppale booy ñoo ñu nag ñoom ñooy yem yoruñu dañuy xañ seen bopp sax pour jox la ngir bëgg mu rafet kon autorités yi maa leen di woo nañu ñëw di ñu jàppale asaw maa ngi koy gërëm bu baax. mais léegi foo bëgg a dem. fi ma bëgg a dem may fi gars yi teg seen bët rek. billaahi wallaahi man yàqam taw ma dara sama morom bu ñëw ñu bëre yàqam taw ma dara. kaa dugg mujj. dafa ka waa Grand F zone 7 yëpp ñëpp. Eh, merci. non bëre woo kii mooy bëre. toogal noonu ngi noonu dafa ñëw pour contester kii doon bëre sànq ndànk gaay ndànk ko ngeen def ndànk wan ko combat bi mu xool c'est bon wan ñu combat bi Lamine lamin na ñëw Lamine na ñëw wan ñu combat bi Sinaay poore ak ay ca combat baa ngi noonu Sinaay sniper sniper waay naa daa tent bopp bi seetaanal seetaanal aja demal demal ñu continuer xoolaat yow gis nga yow yaa ngi gis kay. waaw mani mani mani man dama ko daan ma ko daan. mani waaw mani li la yoon may. bul lënde suba. nga dem bind recours nga dugal ko CNG. waaw incha allah suba. waaw di di. kan mooy sa manager. as as mooy sa manager. as waaw. waaw maa maa suba nga bind recours. maa ngi maa ngi jégalu gars yi sax ndax man sama action ma ko waroon góor ne ba mu mat sëkk di jégalu gars yi bu baax. waaw maa ngi sant ñëpp nag maa ngi sant képp ku ma jàppale. di sant ma waa koñ waaw sant sant paa yi ma jàppale yéen ñëpp euh, di sant ku si mel ni euh, maa ngi sant waaw may sant ku mel ni tondo Cheikh maa ngi koy sant waaw jàppale na si combat baax baax baax di sant ki nga xamante ni euh, moom la ñuy wax Ablaye Ba Ablaye Sall di sama mag jàpp na si Bécaye Bécaye ak Taa waa famille Jubeen jàpp nañ ci combat bi baax a baax a maa leen sant bu baax ñoom ñëpp jàpp nañ si combat bi may sant ku si mel ni euh, Diarra Ndiaye Diarra Ndiaye jàpp nañ ci combat bi taa piire waaw ñoom ñëpp jàpp nañ ci combat bi ay yëpp tolloo gile taa marika waa koñ mi daal bàyyi ma kenn di sant waa Saalum waa ak sama boy ma ànd ñoom Aziz Dramé waaw di sant gars bu baax a baax maa ngi sant gars yëpp gars yi daal jàppale ma ay yëpp dafa fal waaw maa leen sant xëy na gis naa sa yóbbante waaw maa bu baax a baax xëy na xayaa waaw yooyu ñëpp jàpp nañ si combat waaw peut-être nag nii la waroon demee quoi jël bi waroon na mën a gën a leer ni mais xam nga arbi arbi di ñoom loolu nee lañ arbi maa ngi jéegoon nag jaajëf Sniper jërëjëf Sinaay laamu ji am na coow non am na coow am na coow mais bu demee CNG ñu rek la ko waaw coow mën da ñàkk bu ma yeggee noo gisee combat bi coow la noo gisee man li ma waa ji tournée bu xees ki moo daan parce que gisuma benn boo xam ne ngembam takk na wala cuisam laal kon nag kooku moom man mënu ma wax moo daan waaw waaw. mais fii kan. ma Adam. ah Adam jaar Adam. jaatu Adam. ki wanal wanal Arlem combat ah, sa adversaire nee yaa daanu. non man daal ma Arlem combat man sax nit ñu ma lii sax. ah li nga bëri kay teg nga ko yoon. bu ma bëree teg nga ko si yoon ba ak Serigne ah, Touba yoon. donc maa sukk mu may def loolu. li yoon moo may egg foofu. combat baa ngi nii combat baa ngi nii. Arlem ak Sinaaya ngoogu. Arlem nag mënoon ngaa tudd ñaas ñaas. ah père xam nga ñaas ñaas. moom laa ko doon bëgg a wax ma ne ko lu ngeen bokk. daf la teg charge teg loxo ya ña nga ci suuf. seetaanal seetaanal. seetaanal fii bi xew. en tout cas daal xaw ma catu ngemb. catu ngemb lii xaw ma jëlee la am du jël waaye catu ngemb li moom laal na suuf xaw may sengoor da xaw ma demal demal. mais nii mu tëddee nii fees bi ndax laal na wala laal. li nga bëri lii moom bëri la. sa bëri la. mooy maa ngi dàq bëri. ak Serigne Touba. bii mooy sa ñaata combat. bii mooy premier combat. bii mooy premier combat. ba gars yi dama dencoon. ah du yoon nag. du ma bëri nii sax du yoon. yaa ngi ànd ak. yaa ngi ànd ak koo xam ni. soo ko toppee ci entraînement nga liggéey. war nga mën a am loo ne ci làmb ndax Mame Balla bi bi ma koy yor amul 65 kilos mais daanaan lu nekk daje naa yow ku nekk daan na la kon nag da liggéey nga xam ne ki nga àndal ku gëm boppam la. loolu dëgg ndax moom ndax moom nii moom nii teg lu métti dara nii teg lu métti du du may jàmm 5 heures de matin ne 6 heures de matin nii woo ñu dem Sall nekk bi moom xoolal di rajo en sérieux. bilaay wallaay di rajo en sérieux. yu gën mel isi neuf mooy loolu yeneen gars yi daal ñoom dam junior waaw ñoom amoon naar ñoom Modou Mangadi ñoom gars yi mooy loolu ñaa jël ko ñoo fal ama tubaab yi nga jël sérieux billahi wa taala mais bi sama beneen soti yàlla ñoo def yàlla may am mam ndam ci kaw ci sniper waaw kon sa kàddu gu mujj ah maa ngi woo ki su mel ne Aliou Dia ndax jàpp ndax ko kii Mbaye Mbaye Diop maa ngay woo si combat ndax yow kii nga ne damaa jàppale quoi am na lu mu def a ñeneen ñeneen yoo xam ne mooy loolu mënu leen lim te mooy loolu. jërëjëf su ma ko saako jot sama goro ma jot sama goro moom may jàppale moom may jàppale te du mel ni banaa laay laay mu mag ñoo ma jàppale si combat bu baax a baax baax baax baax baax. am na mooy Mamadou Diop. billahi sama booy yi xale tur tur. mooy Mamadou Diop. ak billahi mooy loolu. jërëjëf Sinaay. jërëjëf. merci beaucoup Sinaay Peur. maa ngi sant gërëm. sama yaay sama papa maa kër yaa sant si billaahi maa ngi sant leen gërëm. maam Balla borom top 5. kii kii lu mel ni Mo Ndiaye maa ngi waaw. sant naa ko gërëm naa ko fayam. kii mel Abu xaj xaj jàll kii xajatu. mooy loolu ku lum kon jërëjëf ba beneen rek. waaw borom top 5. Mame Balla moom Mame Balla Mame Balla yaa ko yor. waaw yoratuma ko. mais nag sama doom la. mais Mame Balla léegi léegi daa am doole. ah day liggéey. kon liggéey rek a rek foo mën bi ma koy engagé matul 65 kilos. mais dem na ba daan ñoom Moussa Ndoye ak kon loolu liggéey la. daanoon na Moussa musul néew doole. daanoon na Moussa Ndoye jël bu rëy. Ah, Mame Balla maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la si. waaw Lamine maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu père Palla ak père Boukhar Wade ñii ñoo ma juddu li mu wax dëgg la ba ma ñëw Pikine mbooloo am ma licence dama doon topp ay boose ay ñoom malal yooyu nekk ci écurie bi yor caabi écurie bi mun na ma seede maa doon maa bu mbëri nekk naa si écurie bi 3 ans nekk naa si écurie ans te am ma te kat maa ngi njëkk entraînement maa ngi mujj entraînement ñii sumay père lañ yow bu nekk. maa ngi yow jugandoo ci lamb benn saa nii boobu lamb xewagul amatu ay site yaakaar naa ci ay photo la commencé woon da ngaa tar biyu lamb xam si yow lu bëri xam nga si lu bëri quoi kii la comme ñoom dig si def comme ñëpp moo loolu quoi. Eh, li nga wax dégg ma ko da la waxoon sànq. ah la wax sànq. nga lu bëri. xam naa si yow lu bari xam nga que dañoo bokk même génération ci lamb. parce que par rapport avant ñoo bëri Tapha Mbeur di sa wet nga ne bu eggee da koy mbot parce maa xam parce que jamono ji jamono ji gars yi di jaay jour booy di jaay ay photo ay photo mbër jamono jooju yaa ngi ci làmb ji boobu dara amagul den da ko télé jamono xam jamono jooju nga ma xam moo tax su ma jàppanteeg mbër nga ne da def lii te dama ko koy def moo tax ma xam nga ma xam na ma mais booy bi am sama la sama booy la yaay moom ko dégg kii magam bu jigéen mooy jabar Saa Kajoor ñu koy nuyu baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér ba mu dellusiwaat si a baax la ñu nekk ci ikri Walfadjri ñu ma gis si moom ay talent woo samay xarit na leen booy bi kat bu ko jàppalee mu nekk mbër ñu ne ma booy bi am mu am ay kayit ma lijjanti sama bëgg ma sax code mu utoonoo Assane ñu lijjantil moom ma ñëw ànd ak moom benn instant wutal ko visite médicale wutal ko licence ñëw déposé ko lépp moo loolu licence bi maa ngi def sama saak lijjanti combat ak Mor Diouf ak am nekk Pikine ba combat bi sotti ma soog jël licence bi mu soog a booy muy premier combat ñu envoyé ma xaalisam sama sama wéef ma retiré ko dem fekk ici neuf si équipe bi comme si équipe laa ko fekkoon champion bu mag la mais donte sa kilifaam laa ma ne ko avance booy bàyyi nii yóbbul nga jox grand góor mu jox booy bi parce que lépp dañ koy waxtaanee rek lii du dara booy bi day bëre lu lii day bëre lu lii. ana Ousseynou ak Assane. waaw ñu ngi fi ñu si jàmm baax a baax. ñu ngi waajal sa retour. ñu ngi waajal sama retour bu saf Gora Sock du nangu woon na nangu woon na ba dernier moment ba Fallou Ndiaye joxe kàddoom ma jox sama kàddu ñu jékki-jékki dawaat damay entraîné. yaa ngi Moussa Ndoye revanche. waaye kooku waxuma ko la. yaa ngi Zoss. bëgg naa. Lamine. Gora Sock koy si bi ñuy coow fii nii Zoss fi nekk kuñ ma si jox ma jël la. di nga ñëw di nga ñëw matinal de kontaan naa ci yow mon zoobu roy caa di kontaan ci xelu TV may sa maa ngi lay bëggee di nuyu Pape Mané grand combat MC King officiel Aliou Alaaji Ibrahima Sadio lay bëggee bu baax a baax di nuyu Bintu Bey Alaaji Ibrahima Sadio Matar Diaw Mohamed Jemme Pape Mbodj Arona Lamine Ndiaye Aliou Ndiaye yéen ñëpp ak pulo bi ñu ngi leen di bëggee di leen ziare Soxna Dieng di leen ñaanal jàmm Babacar Dib waaw di leen wax ngeen di abonné tey bés cloche de notification waaye Père Palla bala nga wax ak bi yu wax. am na combat bu mag bu nekk ci géew bi. waaw am na combat bu nekk ci biir géew bi. boo xamante ni mën nañ ni combat bu métti. zoo caala ak rëg-rëg. soo bu roy caa ak rëg-rëg bu Bambey. ana rëg-rëg yi bari nañ léegi de. waaw rëg-rëg moo féete droit jox ñu combat bi combat. waaw wan ñu combat bu ñu wane plateau bi. moo ngi noonu rëg-rëg nekk nii sa droite soo bu roy caa moo féete sa gauche. arbitre sifflé na. na soo bu roy caa wala bu caaroy soo bu caaroy. wër-wërloo nañ ku ci nekk dem nga fa sa morom taxawoon nga taxaw fa. dañuy wër-wërloo rek. ah. ma ne kon ñii soxlawuñ fi sax te taw na. mboot na ko de. mboot na ko de. bii. maa ngi nuyu. Ibrahima Mbaye la gën a manager maa ngi koy nuyu. Ibrahima Mbaye di manager Fass. Reug Reug ak Sokh Zoo bu Roy Thia ak Reug laa ilaaha illallah mën naa ni daa mën a bëri ah bu jëlee turandoom réew mi ngi noonu. dañuy léewtoo di wër-wërloo. dañuy léewtoo. ñoom ñaar ñëpp seen loxo ngi ci kaw. waaw. ñoom ñaar ñëpp seen loxo ngi ci kaw ah jël na ko. mboot na ko. mu bañ. njëkk na ko ji. ko dee ji gaño yi. xoolal man na la da koy yenu da koy yenu ba ci kaw. laa ma jëlee moo waroon a baax père. di am contentement. di nuyu premier ministre Amadou Ba. di nuyu Wan Saw. tey Wan Saw mooy Amadou Ba Wan Saw mooy Amadou Ba. waaye bu fi nekkul yéen ñi mu yónni. yéenay Wan Saw ñu lay nuyu. maa ngi fay bu baax a baax père ginnaaw bi ñu yàlla ñu ngi julli si yonent euh, di gërëm ñëpp di rafetlu aussi euh, jataay bi ndax tey ku dugg rek tey sa sedd na. Euh, promoteur bi liggéey la macha allah donc li lay ñaan yàlla euh, donc nga am sa bés euh, tuddee ko nit mu ñëw wuyu si la ànd ak ay mbokkam donc tey nag boo ñu gisee ñu tew fii comme ni ñu fa doon teewee ay jamono dana ñëw pour représenter suñu frère muy Mamadou Wan Sow ku ne xam ku xam ku xam Amadou Ba xam nga Wan Sow ku dëkk parcelle xam nga Wan Sow Wan Sow moom nga ni moom la Amadou Ba wóolu bàyyi ko fi nga xamante ne mooy UNICEF ne ko liggéeyal ma euh, mu topp ànd ak jeunesse bi di dooleel jeunesse bi donc fu mu jugee jeunesse bi jug fu mu jugee mag ñi jug fu mu jógee rek social lay def fu mu jugee moo ngi jàppale néew di doole yi fu mu jugee rek moo ngi nekk tout le temps ci besoin euh, parcelles waay yi particulièrement ak UNICEF kon tey buñ ko tuddee bés bu mel ni muy deuxième édition waaw donc yàlla def nag euh, mu am tukki bu ko bett donc li ma def rek teewal ko fii nii ànd ak samay frère kii magam la raxam la ñoo bokk ndey ak baay ak sama frère Mohamed. waaw ak nga xamante ni waa Unité 7 gi yëpp ñu mobilisé wu def délégation. yàlla fanam gudd wan yàlla toog bañ koy weer ak a weey si barki Xaadim Rasuul si barki Seydina Muhammad jërëjëf sa kàddu gu mujj waaw sama la euh, bu baax a baax gën a relever suñu confiance si Mamadou Lep Wan Sow donc bi mu jàppee ba tey bàyyiwul donc ñun parcelle euh, gis nañ suñu bu baax ci moom tey bu yàlla defee ba mu yor ndombal tànk parcelle du fàtte yi nga xamante ne ñoo nekk parcelle à chaque fois li ko gën a intéressé mooy besoin population parcelle waay ci lay xëy ci lay dox donc nag ñoo ngi koy ñaanal yàlla moo mottali yéeneem ñu ngi lay gërëm baax Père merci beaucoup jërëjëf. Mohamed sa kàddu gu mujj. waaw xanaa di leen remercier rek di leen masaw coono bu baax ndax organiser lu mel ni moom waaye bu bés li ñu naan bés borom lay tolloo bu wax ne wan sow mérite na li ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm defal ko tawfeex ba yéene gi mu am yàlla mottali ko maanaam euh, euh, defal ko taw a baax baax ba li mu jub suñu borom bi defal ko ci loolu daal lañ koy ñaanal parce que ñun amuñu fayam ñun daf ñoo taxawoo fu nekk donc di ko dañ koy remercier di ko ñaanal rek yàlla defal ko jàmm defal ko taw feex di sant yëpp di sant waa parcelle yëpp di wax ne Wane Sow mi ngi fi dañ koy jàppale te yàlla tax moom bu xam ne day def te yàlla tax boo koy jàppale da koy jàppale te yàlla tax di waa Parcelles ñëpp di teg loxo yàlla defal ko tawfeex defal ko waa Parcelles ñëpp jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf kon am nañu kontaan dama commencé na xumb de. Beuz ñëw na ak équipe am. kan la Beuz. waaye Beuz waaye dama jëlee ma léegi dama jëlee ma paase ma ñëw. Père Balla ngi noonu. Père Balla ma ñëpp ma jama moom père. Cheikh Seydou Ada Fass maa ngi lay bëgg di la ziar. Cheikh Seydou Ndiaye production. ngi leen di bëggee bu baax a baax waa ana ana ana Zarko Zarko mu ngi ci ji Zarko ñëw na ci làmb ji nañ ma koy indil fii ci làmb ana rek rek mi ngi taas fanaanal rek waaw ren day bette en tout cas ñu ngi déglu promoteurs di tàllal ñëpp loxo ndax moom compétiteur la su amul combat tam day dem MMA mais avant loolu daal bëgg nañ mu am combat bala muy dem di waajali MMA bi loolu moom ñu ngi waaj bu baax a waaye tamit bu bul fàtte. waaw. dimanche bii di ñëw petit mooy ñu woo petit production. ah petit nag kooku mooy petit bato grand kala. Naaru Sogas Ngor. ah loolu nag mooy bis bu rëy ñi ñooy ñan Lamine. ni mooy jàkka. jàkka jàkka jàkka xaaral ma bàyyi la nga waxal wax ak ñoom bàyyi ma bàyyi la nga waxtaan ak ñooñu. mais nuyu naa la. père maa ngi lay fay. mais luy say tànk fii tey. waa tey samay tànk mooy. Euh, dañuy sant promoteur bu baax a baax ginnaaw bi ñu sant yàlla julli jonante bi sallallahu alayhi sant suñu ñaari waajur di ñaanal suñu papa El Hadj Thierno Ngom fi mu tëdd yàlla xaaral ma. ah kooku sama waajur la. waaw kooku moom sa waajur la kooku baax. waaw loolu moom. kooku bi muy arbitré. waaw boobu arbitre yi xewuñu. dëgg la dëgg la arène sénégalaise. dëgg la dëgg la ñoom maam Gorgui Ndiaye mii ñoom Papa Diop. ñoom Papa Kane. ndeysaan ñoom Double Less. ba pare dafa nekkoon arbitre boo xam ni dafa sportife xam làmb maîtriser ko te en ci wàllu làmb kooku nag boo ko tuddee dinaa wax maa lay nuyu bu baax a baax. maa di la wax ne rek ñu ngi lay jaajëfal. di rafetlu sa liggéey bu baax ci làmb vraiment wàññiwoo làmb da nga koo yokk. di ñaanal sunu papa ba son yàlla guddal fanam. amiin bàyyi ko sunu kanam. mu gunge xale yi ba ci kanam a kanam. amiin ñaanal suñu ñoom papa Falaye Balde yàlla xaar leen àjjana. suñu papa maam góor gi Ndiaye bërki de. xaaral àjjana ñun xamuñu ko mais dañuy dégg sam papa di wax seen histoire ak li ak Boston waaw waaw vraiment loolu noonu dañ ciy kontaan man sama xarit la woon bilaay walaay taala danaan ñëw kër bàyyi yëli ngom waaw sam papa woolu ma ne maa ngi foofu ma ñëw fekk su ko pour ñu waxtaan dëgg la dañuy toog di waxtaan mu ne ma mu ne ma Boston Boston dafa dawal oto ba buntu këram booba su ko neexoon ne ala Cerno am na oto mais Baston dafa dawal oto buntu kër na ko oto bi yow yaa ko war a war du ko war. te loolu noonu tey fierté la ñu toog tey. wallaay ñu topp Ibrahima waaw Ibrahima Ndiaye nekk xale nekk jeune nekk responsable Benno Bokk Yaakaar. waaw di liggéeyal président Macky Sall liggéey bu am solo. waaw allah ñu nga xamante jaxaay yëpp ñoo dajaloo ne ko yow yaay coordinateur jaxaay. fay liggéey liggéey bu am solo. waaw. Ndiaye moo ñu yónni woon tey ñëw teewal ko fii indi ko drapeau am. Ibrahima Ndiaye lañ tuddee drapeau bi ngeen teewal ko. ñu ñëw teewal ko. ndaw loo gis. kala teeru ko ko yónni lay indaale. dëgg la dëgg la nan la bis bi mel si yéen. waaw vraiment kontaan nañ tey bi ñëwee xool stade bi ni mu taaroo da ngay xam ne tey garmi lañ ko tuddee ndaanaan lañ ko tuddee jàmbaar lañ tuddee drapeau bi jàmbaari président Macky Sall jàmbaari Amadou Badji Ibrahima Ndiaye nekk jàmbaar l'homme de social l'homme de développement. jeunes yi ñuy liggéey bi mu faloog léegi jël na lu mat quatre-vingts jeunes ci ab biir jaxaay ñuy liggéey ku ci nekk di woon fayeeku di yóbbu sa kër. jël def financement cent millions pour les femmes kon kooku tey askanu Jaxaay amuñu fayam kon Ibrahima Ndiaye dañ koy jaajëfal bu baax a baax moo tax ñun ñu takku ñëw di ko jàppale nag ci ginnaawam di ko liggéeyal. mais ana Ibrahima. jàkkal la yebal waaw waaw drapeau bi baax ñu kontaan si drapeau bi vraiment ñun la fi yebal ñu teewee dafa mel ni moom moo teew yaakaar ngi nii Maodo vraiment ñu ñëw teewal mouvement MBS teewal fi tamit waa commune Jaxaay yëpp vraiment ñu ngi si si drapeau bi bu baax a baax a baax vraiment. mais Maodo ñu lay nuyu. Père maa ngi lay siyaar bu baax. waa di nuy ñëpp rek di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi waa di wax rek comme ni ko jàkka waxee suñu mag ak Demba ñu teewal fii suñu patron Ibrahima Ndiaye vraiment ci drapeau bi di wax ne rek kontaan nañ trop vraiment ci accueil bi ak lépp di ñaanal promoteur bi aussi suñu borom defal ko lu kawe njortam ci journée bi ñoo ngi lay nuyu bu baax père Bala mais léegi nag looy wax maire boo yeggee. waaw li may wax Ibrahima Ndiaye rek mooy li may wax man président Macky Sall sa laay waxal direct président Macky Sall na def Ibrahima Ndiaye ministre wala DG. loolu lañ soxla na def Ibrahima Ndiaye ministre wala DG parce que askan wi ñoo soxla loolu mi ngi liggéey te xale la te lu ma bokkoo ak askanam loolu daal laa amoon lu may wax kon di la jaajëfal père Ba la. jërëjëf doon na kontaan nañ ci yow. jërëjëf papa. loolu du salaamaaleykum sama gaay maa leen di maa leen waa NGV ah maa di sant bu baax a baax ak. mais bii mooy sa ñaata combat. deuxième combat deuxième victoire. yàlla bu wér a wér a wér nag. Baba Séréer. nga bëree tey nag. la. mbër la Bamba Séréer laa yaakaar ma ñoom ñoom ñëpp. maa leen di sant naa ci ñoom billaay walaay. waaw. man écurie nga nekk. Doudou Bakassar. maa ngi lay jaale seen ah, ñu la koy fay bu wér a wér père. la koy jaale bu baax. yal na ko yàlla yërëm bu baax a baax a baax. waaw. na ñëw ñu bëre. Wassintor na ñëw ñu bëre. 5 tonnes moom laa soxla. na ma may nga waaw na ma may sens. Seydou looy wax ñi la doon jàppale. maa di sant yéen ñëpp billaahi aw aw ma seen fay quoi sama papa man billaahi jàpp na ci combat bi bu baax a baax a baax a baax a baax waaw ak Thiaw Elimane ñëpp daal waaw ñëpp ci jàpp billaahi waaw jërëjëf waaw. andil ma ko combat bi andil ko. combat bi andil ko ko combat mu seetaan ko andil ko combat bi mu xool ko. moo ko mën a indil combat bi Mohamed moo mën a indil combat bi moo ko mën a indil combat bi ñu ngi lay nuyu delloo waaw ah, da la yenu de cëppeel nga delloo ko ak mboot waaw maa ngi lay nuyu. voilà maa ngi lay bay. waaw ci affaire rek. waaw. waa di nuyu waa di nuyu Beuz ak équipe bu Lutte TV yëpp. waaw di nuyu ale ak Jimbo. dëgg ma doon liggéeyal muy waa Rent DKR. waaw di nuyu Mbaye Diop. waaw ku ma taxawu waaw tey bu ma déggee ba dégg licence promoteur tey moom moo ko waral. mais fan nga toll. Mbaye Diop maa ngi koy gërëm di gërëm waa Pikine. foo toll. maa ngi ci maa ngi bëri maa ngi ñëw la 20 avril. am nga date. am naa date la 20 avril ñoo koy bëri. dëgg naa Daal Ba Mbaye ak bébé Birahim ah lamb la bu géej waay waaw ak euh, Boy Balde ah loolu lamb la Balaye Balde Boy Dieng ñu koy wax aari nekk géej waay moog Ramdaan si ñoom loolu lamb la de lamb yu neex la dëgg mais est-ce que pare ngay innovation yoo ci def waaw borom ñaari ko mu ñaari maana Kali Mégane Ndour Mégane Ndour ak xalil mbër kan mooy Mégane Mégane a njool a ah, ñu ngi réew doo man daal Lamine morceau yu jaune yi morceau yu jaune yi bari na daa fa xew daa xew xewit la xewit la daa xew ñawee lewtoo lewtoo ca biti. xale la ak Mbengue ànd ak dañuy génn saako yi. avertissement sortie délibéré. arbitre sifflé waat na. arbitre sifflé waat na ñu ngi léewtoo. ñu ma ngi koy pàtte ngi noonu lu ma gëj a gis ci làmb du loxo ba yaa ngi wax ak ñoom ñoom ñaar ñëpp ñi wuti pexe mais bëre bi dafa diib bëre bi dafa diib di ñuy bëre ñoom ñaar ñëpp a ngi ah, arbitre bi àtte na temps ba jeex na temps ba jeex na da di temps boobu temps cinq minutes yi noppalu ji mais Pape ñu lay nuyu waaw ah, Pape la ñu lay fay loolu maa ngi nuyu waa Pikine di nuyu suma famille di nuyu képp ku yeewoo Pikine di la nuyu bu baax di nuyu di nuyu bu baax di nuyu sama ñaari champion ma fekk bi ci plateau bi. waaw waaw maa ngi nuyu Mbaye Diop di nuyu yi daal ni nga da doon ngénte tey. ah yëgu ma ko yi daal doon ngénte ah. tey maa ngi koy gërëm bu baax di gërëm waa équipe Lutte TV yëpp ñoom Beuz Lamine képp ku nekk Lutte TV di rafetlu sa liggéey sa taxawaay biir voilà di ñaanal suñu papa suñu papa Pape Diop yàlla bàyyi ko fi suñu kanam. waaw waaw di wax waa Pikine ñëpp nañ ko ñëw jàppale. waaw parce que suñu papa la. moom lañ fi dese maa ngi gërëm ñëpp di gërëm képp ku yeewoo Pikine. mais fan nga toll ci sa combat yi. waaw sama combat bi am naa date le 20 avril. alhamdulilah diggante bébé Birahim ak Sall Bambey. combat bu rëy dugal pël bu Géejawaay. ak Boy Balde bu écrit Falaye. waaw Ramdan Signor Ramdan Signor. ak Boy Dieng ki mujjee woon a bëre ak Mor Kankang. waaw waaw. léegi li ma si doon wax donc mooy tey dimbal dama mbër yi ma engagé may naa la bolo gu ticket. waaw ah, loolu yombul de waaw jàppale leen si daal. loolu yombul. waaw loolu laa leen defal loolu nga def si en di ci di ci gërëm bu baax Kandji gis naa taxawaayam. Baye Ndiaye moom it taxawu na ma bu baax. Baye Alé Ndiaye kañ production. di gërëm tamit waa woon Xbet. ku mel ni Papis Dieng. ah loolu leneen la ñoom ñooy sama pare. ah am nga pare waaw woon Xbet directeur bi. am nga pare. waaw am naa pare. Jamil ah. Nourula moom it ak Katrina ñoom ñëpp ñu ngi sama ginnaaw di ma jàppale. maa di nga ci liggéey ak li TV. non dem dem ñu ngi ci biir amul accréditation. sama lamb amul accréditation. billaahi wallaahi ku bëgg ñëw maa journaliste bu ñëw jarul ngay wut man si ñëwal dugg jaaykat mu nekk di daan dooleem jarul ngay dagg dige koy neex na waaw kon nag euh, sa dernière kaddu sama dernière kaddu mooy maa ngi baalu ak ñëpp waaw di masawu nag tey li dal Pikine di wax ñoom ñëpp nañu defaruwaat mooy li ñu dal nii ci combat yi ñu mujjee am waaw waaw lii lamb la woon rek waaw nañu defaruwaat waaw fii problème amu fi déedéet de benn problème amu fi sport a demee noonu nañu defaruwaat dëgg la ñu xam ne bu ñu booloowee kenn mënuñu yow liggéeykat nga waaw waaw maa ngi yow lu baax rek nga xam képp ku ci am képp ku ci am tolof tolof maa ngi ñaan sa combat bi di ñëw yàlla may la si ndam amiin waay amiin boo ñaa muy Ama Baldé muy Eumeu Sène ak ñoom di ñaanal ñoom ñëpp yàlla defal leen jàmm jërëjëf di la gërëm bu baax a baax a baax yow tam ñu ngi lay gërëm sama xarit nag a baari moom sama rek la sama xarit la di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal ndaanaan la di nuyu ñammi ñammi moom it waaw jërëjëf waay Paala merci merci kooku mooy Pape Sarr combat ba demaat na combat allo Mbengue Ndour Mbengue Ndour Mbengue Ndour génne na Khalil Mbër Khalil Mbër nga Ndour génne na la am nga avertissement Khalil Khalil am na avertissement waaw waaw naa leen woo Mbaye Mengue yaa ko ëpp doole xam nga ne Mbaye Mengue mais kii pat mi muy pàdd pàdd mi baaxul. pàdd mi ngi ma mi ngi ma fàttali Lac de Guiers. waaw mais dafa am nooy pàdde fi muy jógee dafa sori pàdd am càcc la buñ la yëgee baaxul ah jël na ko takk ah, na eh! ko ah, woote. woote waat la woote waat woote waat la yow kay na nga ne nañ bëre waat arbitre ah baax na coow da nga fi andi ah mais ah, boo xoolee fi arbitre dafa àtte dara amul la wax waaw waaye garaaw amul problème combat bi daa yàgg yoon combat bi daa yàgg waaw yàqu ci dara. dama yàgg yoon. ah oui ci biir géew bi la. biir géew bi la sélectionné di ko tuur looloo tax ñu homologué jël bi bu doon si ginnaaw yi la duñ ko homologué. mooy baari baari. waaw. ñammi ñammi ngi nii ñammi ñammi xam nga ñammi ñammi. <laughs> ñam ma ngi baare ngi waaw waxtaanal ak baare ba pare. baare maa lay nuyu. waaw di la bëggee di bëggee waa Grand Yoff. but ba but cat ba cat. combat bi may dégg kañ waaw la 5 mai incha allah. yow kan. maa kirigu kirigu. noo koy waajale waaw instant yii pare naa bu yàgg barke Serigne Bamba. mais kirigu garaaw. non munul garaaw ba waaw munul garaaw ba ma garaaw. nañ ñaan yàlla rek yàlla waaw yóbbu ñu si bis si ñu dem bëre daan barke Serigne. wax sa supporter yi. waaw di leen wax nag ñu waajal barik de retour barke Serigne Bamba pour ba pour cat ba cat garaaw yëpp ak may xaar damay génn xale yu ndaw yi sax naan ma baari kañ ngay bëree baari suñu kër la ñuy ñëw di ma fëgg war na yàlla mais nañu waajal la 5 mai incha allahu rabi ñu dem jël nañu moom barke yàlla bi si woo nag autorité yëpp ñu ñëw jàpp si bi si mel ne Arama Faye maa ngay woo mu ñëw jàpp si bu baax a baax a baax ministre de la maa ngay woo cour de production woo di nuyu sama benn jigéen nag Soxna Mariama da siy bu baax baax waaw heure bu ma demee tërën mooy ñëw di ma dugal. aywa jërëjëf. jërëjëf Bari Bari. ñam loo wax yow. waaw. kooku mooy Bari Bari doomu ndoyu Boubs. Fouta production. di nuyu Ousmane si si Jasner business. di ko nuyu bu baax a baax di ko ziare. Eh, ñam ñami. jëlal ma ñam. ñam bi maa ngi lay ziar bu baax a baax. waaw ah, fay na ma la gaan bilaay walaay tallaay ginnaaw ma sant yàlla juddu si Yeesu Kirista maa ngi sant suma yaay bu baax ñaan sama baax mu tëdd yàlla sell si koom di bëggee garaaf cet ba cet but ba but ñaanal sama doomu ndey ndam wéy ngóoloo bilaay walaay tallaay di waaj nag combat bu baax a baax a baax man ak mbay meññee waaw maa ngi si ay préparation maa ngi sul tànk ne nga yaram bi bu baax ñaan waa garaaf xam nga ñu gën ma yokk doole jàppale man garaaf rek la am waaw am saa yi maa ngi jàpp tawa baay bi laay walaay talaay entraînement matin soir bay meññee du sama yoon sax ci làmb mais nu mu demee la waaw dama koy soxali koo ko naay su ma ko jàpp ma xam ne dinaa ko piano ma ne ko jàppee dama koy piano la civile ak la sol familier bi doo ba léegi nag yaa ngi wax ta boo wéree dañ lay daan non non bi nag foog ngay def ay résultat de Alxuraanu karim laa la wax def résultat sax moo ma bàyyi ba léegi ci làmb bi laay bu dee ko doon def résultat damay bàyyi làmb dégg nga li mu la wax. mais piano piano. doo réew mi la similaire indi si sol familier doo bi su ma ko jàppee mu jeex bilaay walaay taalaay mais man damay defaraat sama yoon nii rek. bilaay walaay taalaay yal na ma yàlla may ndam ci kawam nag. faxas jàll la faxas jàll la kay bilaay walaay yàlla baax na. waa grand yi waa grand bu baax. waaw ñu doon déggee ñoom ñëpp cet ba cet bilaay walaay taalaay a du nuyu ñi may jàppale si diaspora bi ku si mel. waaw yéen a yëngal lamb ji. waaw ñoo ko téye ñu répét pour lañ ko xoj. bilaay walaay tàllaay ñoo ko fa am waaw nice bilaay walaay tàllaay sa erreur bi yëpp si ñami la woon waaw te maa ngi ñëw lépp laay defaraat waaw bilaay walaay tàllaay bu baax a baax yow ma ba ma xoolee xam ne caaxaanu ma war na yàlla lépp ay bopp liir la. nari kiis bi. kiis yaay nii lépp ay bopp xool nga naa gisoo bopp liiree yow. bopp golo yaay nii bopp liiree. bilaay walaay talaay no ayando bimbam no borom cus ay sultan gi médien bilaay talaay frano minu yàlla bu baax na. ñaari combat nga amagum. deux combats la am deux défaites. mbay non non ñam góorgóorlu. di ko sant bu baax ñam góorgóorlu. waaw góorgóorlu moo war nag dinaa góorgóorlu bu baax bilaay walaay talaay di nuy Père Mbaye Diaw depuis Espagne nag di nuy Marcel Ngingue waaw ne ko instant yii de Basiir Touba na jàppale gaaw waaw yow amal jaamu yow it kontaan naa si koy ñamu ñami kontaan nañ ci moom bu baax a baax. di félicité booy yi mu indi. booy yi di leen félicité ñoom ñëpp. di ñaanal Vieux Ngolo yàlla na ko yàlla may ndam. billaahi. Vieux Ngolo da leen a yore. barki alxuraan mais yàlla na ko yàlla may. sa nday bu sa waay mu ngi fii. waaw ñëw na. jàmbaar si yi. billaahi. li mu bëgg moo xam yàlla na ko. doomu ndey doomu maa ngay woo si combat bi a baax moom tamit Ousmane jàmbaar la ko combat si jàpp bu baax maa ngay woo mu jàpp si góorgóorlu góorgóorlu incha allahu rabi naa gën a góorgóorlu waaw incha allah moytu lépp lu la mën a yàq voilà la demee dañuy moytu lépp boo nekk si gox ñu ne da ngaa yaru sooy bëri ñu ñëw parce que ci sa lañ ko teg da ngay moytu lépp la mën a yàq bilaay gi nga fii mooy Sénégal la da ngay moytu gaan gars yi da ngay da ngay moytu ba sonn mais xam nga rek gars dañ lay fexeel di la defloo ay business wóor na yàlla mais ñooy sant yàlla bu baax a baax bilaay dinañ gën a góorgóorlu di bëggewaat waa Garaaf bu baax a baax di leen nee ñu waajal baari baari léegi léegi rek barki Serigne Bamba bilaay yow amal jaamu la jaajëf jërëjëf kontaan nañ ci moom jaajëf bég ci yéen jaajëf ñammi ñammi ñammi ñammi Ahmed Lac dafa taxaw léegi naa digganteem ak ki nga xamante ne moom mooy Baye Jiri Tarkina astafurla digganteem Mama Lamine bu Baye Jiri Tarkina waaye mais benn la rek waaw jili boobu mooy avocat mbir yi ñooñu mooy seen avocat ay ñoom koña de ay ñoom Mama Lamine mooy seen avocat quoi moo leen di xulool ci groupe yi waaye nag koy sa avocat man am na dafa bari sax samay avocat mënuma koo lim benn ci ku ci mel ni Thiat Robes sama doom day borom Espagne waaw foofu la mujj mbër ba mooy loolu ñoom de léegi ay avocat lañu quoi dañoo bàyyi mu seen na pour le waaw taxaw na waaw di ñaan yàlla suñu borom mu yóbbuñu si ak jàmm bañ a manqué ah. yàlla suñ borom defal ñu ndam waaw di nuyu sama gaay yëpp di nuyu sama papa mbës di ko wax ne ko combat bi taxaw na mbës ah ak Omar sama grand di nuyu sama papa mbay Guy gi di ko wax ne combat bi sa combat la waaw di nuyu Mbaye Mbaye Aba sama xarit sama doom day borom États-Unis Ndiaye Ndeye la borom États-Unis waaw maa leen di yëgal ne combat bi taxaw na sama diggante man ak Mama Lamine waaw Sall Ndiaye borom mexey lambaay Sall Ndiaye borom États-Unis borom mexey combat bi sa combat la maa ngi di ji woo ñëpp di ci woo bawol bawol yëpp di ci woo Tafatine sama grand Tafatine maa ngi koy woo ci bés bi di ko wax ne ko combat bi sa combat la di ko ñaanal yàlla suñu borom mu may ko ndam ci diggante mook Balla Gaye numéro 2 waaw di ñaanal sama grand nag mu am ko combat waa di wax Ndiaye Tine bii courage lam noonu la waaw Ndiaye Tine ñu ngi koy wax bii courage lamb noonu ñoom BMW ñoom ñëpp. merci beaucoup benn eh, paala waaw kii Lamine. Père Palla waxtaanal ak champion boobu. maa lay nuyu. la Père Palla yàlla julli sant sama ñaari wàll Père Palla man damaa yàkkam ci a toog fii dama dama lay suivre quoi billaay walaay ndax damay gis wax yu rafet ngay mais man bëreegum nga ci làmb. am naa 3 combats 3 victoires. maf gi ah? maf gi. maf waaw. maf maf waaw. tuddee nga tudd maf. non benn tur la rek Tata Boy la nu ma ko tuddee. yow xam nga maf. maf waaw xam naa ko. la. benn picc bu gaaw la. benn picc bu gaaw la waaw. picc la boo xam ni luy dund lay lay dundee. waaw moom laa tuddee sama bopp de damaa gaawoon quoi bi ma doonee xale. waaw maf dafa garaaw. moo tax booy yi ñu tuddee ma ko ci la tur bi mag di mag. mais saa bi ba ma dem ba am nga combat. non amaguma combat mais ñu ngi may wax komba quoi. mais adversaire ñooy bañ. moytu quoi. waaw ñooy moytu rek. ban écrit nga nekk. écrit Badajon laa nekk waaw. ma ne kooku sama waay la. waaw écrit Badajon laa nekk mais ñu bëgg sport. père dama lay suivre bu baax a baax barke Serigne Salim Mbacke bilaay dama laa bëgg laa Lagros chaque jour boo waxee rek ma ne plateau dama cee yàkkamtee toog quoi. billaahi wallaahi père. sa liggéey rafet na quoi. yàlla na yàlla li nga kon kon kon yaa ngi demandé ndax ku nekk ci victoire kenn waratu laa bañ mais lamb ji léegi gars yi moytu woon tey dañu ko war a bàyyi quoi parce que Serigne Touba Mbacke. non góorgóorlu xëcc xëcc bu yàggee rek ñëw. waaw waaw léppay baax incha allah bu wëri de. ma ne combat mu jeex daa mel ni de. ah non li ci des bareetul. waaw. kooku ma nga wax Zarko borom Grand Yoff. ah Zarko dafa xew temps yi de. waaw. ruube rek la man ruube. ah ruube nag waaw day ruube. waaye le premier le premier mai. premier mai jàmbaar production. ah maa ngi dégg ni Ndiaga Thiam war na ci génn de. waaw diggante Franc ak Bombardier. njiitu di Ndiaga Thiam de. waaw Ndiaga Thiam. li ma digganteem ak Mamady waaw waaw maa ngi dégg loolu. combat la de. combat kay. Mamadi ah, mën naa bëre de. waaw ah, bu xew ci jamono. waaw est que ne père est-ce que ne di méb Mamadi ah, mën naa bëre lool. boo ko moo dooroon kii mu daan tun na koo door mu daan waaw. naan ñoom nga dañoo wax séeréer mënuñoo xeex kay. mu ni dañuy wax séeréer yi mënuñoo xeex looloo ko merloo. ah dañoo yàgg a xeex Robert Diouf bu sooxaan tànk ba. Robert mënul na xeex xeex normal. bu daggaan xiis bi. ba léegi teg yow kaane boo jógee bu la remiser soo moytuwul doo tala bëre. Robert ak Modou Lo ku daa xeex xeex. style benn. Robert leneen la woon. Robert c'est un technicien fin. ci wàllum xeex wala bëre ci ak bëre. ba pare gëmoon sport ba pare digg bi nit la woon mënoon dafa gàtt mënoon dafa njool kooku moo daan dox nag soox tànk ba seq xànc ñu njuugal ko mu joxoñ jiwaalo c'est grand monsieur de la lutte sénégalaise moom Robert Diouf am na ay kaw am na ñu mu dóor ñu ah oui lu ne def na ko ci làmb mais bàyyi ñu ci bëri bàyyi ñëpp bëri kaw man loolu ma jaaxal waaw ah, parce que ñoom dañu gëmoon li ñuy def dañ xeex di bëre waaw xeex bëre loolu moo amoon bëri daan xeex di bëre xale yi léegi nag jànguñu dara da ngay takk ak ba mu rëy nga di jàppante di korante te booba lamb lu mu rëy rëy ñetti combat lay doon ñeenti combat kon moom bari na ay kaw Robert amul lu mu deful ci lamb bari na ay kaw ah bien sûr am na ñum dóor ñu daan du jeex Mbaye Guèye du jeex bala Gaye Ndour du jeex ñoom ñëpp la Double Less. même Double Less. am na ñum dóor ñu naan. ah ñooñu du ma leen tudd seen doom yaa nga fi. ñim dóor ñi mag ñi nga lim nii ku ci ne dóor nga mbër sama kanam mu daan. ñi nga lim nii. Pape Diop am na mbër moo xam ne bi mu ko dóoree. bi ko Pape Diop dóoree masuwaar bi dafa démonté wu. ah. dañ ko yóbbu hôpital ci guddi gi. laa ilaaha. la. kon dóor mu daanu yàgg na ci réew mi benn. yàgg na ci réew mi. te ñoom dut bakka te ñoom Moussa Diame. Siteu bu Saloum a ngi noonu waxtaanal ak moom. Siteu bu Saloum maa lay nuyu. père maa lay ziar. dina nga tudd Siteu bu Saloum. waaw dama neex rek man Saloum laa dëkk quoi di foyee làmb xam nga gars yi xam nga rek bëggoon Siteu tamit yàlla la ma ak moom ah waaw moo tax Siteu bu Saloum bi di daw feebu. maa ngi si ñaata combat ma bàyyi tafa ci kiw combat moom jël ma direct. quoi huit combat yi foo ko bëree. fii laa ko bëree. ku daan rëm bu daan Boy Zil daan Tey Maxi daan Petit Gona waaw daan ñeneen ak ñeneen xam nga. daan na gaa yëpp. gars yi am na ñu ngi may dee sànq benn combat maag benn boy bu dëkk ginnaaw raay xam nga Prince Ndeye. man booy la Prince xam waaw. ñun làmb moo ñu fi bàyyi quoi. bëgg nga boobu naan la de. waaw bu gars yi waxtaanee buñ jiwoo rek. ban promoteur ko bëgg. non ñoo moo daan ñoo ñoom ma ko doon wax sànq nag quoi. ok waaw di wax maa ngi nuyu mbok mbokk Saloum Saloum yëpp bëggoon gars yi jël ma direct xam nga. ñu ngi lay génne xam nga ñëw mooy loolu ndax dama dama commencé jël ko direct dama commencé sonn ci làmb quoi xam nga diir bi deux ans ngi nii mënu ma bëree ku ñu jox Siteu bu Saloum mu dello avance am pour lan dama war a bëree man mbër mu ndaw laa dama war a bëree dafa ma fi lu tax samay morom di may daw na ñëw ñu bëre ay nuyu waa Saloum yëpp di ñaana sama ñu yaay yal na ko yàlla yërëm yàlla xaari ko àjjana xam nga ci barke yonent bi xam nga di encouragé Ndiassé xam nga ne ko làmb nii la xam nga bu ñu defee recours incha allah am naa yaakaar suñu borom dinañu may ndam di nuyu grand góora di nuyu ñoom Seeña di nuyu sama rakk ñoom Tafa gaay yëpp di nuyu sama famille yëpp maa leen nuyu di nuyu sama grand frère ñoom Ibou di wax na ci gaay yi wax pour ma am combat di nuyu Pape Gambi xam nga di nuyu waa Gambi yëpp ñoom Kooc gaay yi maa leen di nuyu bu baax jërëjëf di nuyu père ak yaayam bu baax di nuyu gaay ma ànd ak ñoom di bëgg gaay yi na gaay yi ñëw ñu bëree quoi incha allah mu ngi dem maa ngi di nga am ba léegi père am maa ngi bu baax jàmm mborum Mbaye Tapha ngi ci géew ba ak frontière ñoo ngi noonu ñooy bëre combat spécial bi père Pala ma jama waaw Vengolo ak baa ngi wax ak ñoom lamb lii la bañ. mais ñoom ñaar amuñu. waaye lamb nangu na waaw combat bi bu ñu ko bëree jom warul mën a yàgg combat bu gaaw la war a doon. combat bu gaaw la war doon. waaw diggante diggante Vieux Ngolo ak frontière. frontière ak Vieux Ngolo combat la boo xamante ni ñoom ñaar njëkkante la war a nekk warul nekk combat boo xamante ni dañuy taxaw rek di ko léewtoo njëkkante la war a doon. arbitre naa ne ku jiitu ci suuf. arbitre sifflé na mën nga gagné combat bi. loolu am na solo père Palama Jama. waaw ña ngay dox nag. Vieux Ngolo. ña ngay dox wan ginnaaw. waaw moo nge moo nge bu rouge bi. waaw Grand Yoff la jógee. su fóota production moo ak ñoom Baye Tafa. ñaari mbër yaa ngi leewaatoo fii ci arène nationale ña ngay leewaatoo daa mel ni pied gauche la ak pied droite. waaw pied gauche ak pied droite waaye loolu du ci dara. lalal na ko bi moom Vieux Ngolo. waaw ni mu ko ki muy dajeel dafa war a ëmb tànk bi su bëggee jël tànk bi mu jekk da koy ëmb dugal ko ci ñaari tànkam. ëmb tànk bi mooy lan lan mooy ëmb tànk. expliqué ko koy séq. kom gis nga moom tànkam bii mu teg pied nii la koy teg ëmb tànk bi. maanaam dafa war a fexe waaj chaque jour muy nekk ci digg diggam. waaw waaw. loolu mooy ëmb tànk. la war a def. doon ah, na jël tànk ba jël na ko roppi ko nañu. seen signature ba metti woon na de ah, waaye seen bëre la bëgg naa mu tax ko ñoom ñaar nag dañoo am kattan ndengeñ na ko. ñoom ñaar ñoom ñaar dañoo am kattan. mi ngi bëre moo ngi serse. Ah, génn nañu kal na ko. kal na ko lu arbitre wax lu arbitre wax lu arbitre wax bëre waat la wax wala quatre appui victoire de Vengolo Vengolo nanguwut Vengolo nanguwut Vengolo nanguwut waaw ah, lu tax nanguwut Vengolo nee na nañ mu daan ko mais jox nañ ko na dem waaw bañ na lu muy wax Vengolo ah Vengolo la Vengolo jox nañ ko victoire. jox nañ ko victoire mu bañ. c'est la première fois ma gis nii ci àdduna ma. ah ñu jox victoire. maa ngi soo gis nii ci lamb. waaw ci biir géew bi la ko côté. waaw ci biir géew bi la ko côté. kat appi nag am na moom. ah waaw. Vieux Ngolo bañ na. aywa mbeng waxtaanal ak Mbengue Ndour moom nag père mu gaaw waxtaanal ak Mbengue Ndour mu gaaw nga libéré ko. yaay yaay kat. maa Mbegaan yaay Mbegaan Ndour. yow xanaa turu buur nga yor. waaw Mbegaan Ndour sama maam ma dibee ko sama bopp. laa ilaaha illallaah. moo tax lu may def day wóor jom fula ak fayda. mais ni nga loolu xam nga sama mag yi la rek ñoom Tafa Boy Bambara ñoom sama coach su ah Ousmane bi nu yor saal ba xam nga ñoom père Mbaye Faye. ah ñoom ñoo may entraîné Mamady Ndiaye. bii mooy sa ñaata combat. bii mooy sama cinquième combat père. ñaata victoire. trois victoire benn défaite. mais foo jëm. waa ci samay morom rek. mais trois victoire benn défaite quatre quatre combats la. waaw non non trois victoire bii mooy sama cinquième combat. Ah. bi mooy sama cinquième combat Siteu bu Songaan Gueye amaana troisième combat bi sax dama ko daal mais arbitre yi ñoo yàq sama combat man ak Siteu bu Songaan Gueye waaw bari ñu leen bëre ma daan ko fën fën. arbitre yaa ngi waaj. père maa ngi waaj bu waaw di sant ñi ma jàppale rek Xayda Seck Xayda Seck père maa ngi koy sant bu baax dama jëndal bloc may ma ay carte xaalis bu bëri la ma jox xam di wax Jean Baptiste maa ngi koy sant bu baax grand Tidiane fi ma ngemboo aw ma fayam maa ngi koy sant bu baax wax dëgg yàlla ma grand Kayre lu ne lan daj ci combat bi grand jóge ba Louga ñëw xam nga di sonn ci man sama mag yi Tafa Boy Bamara sama coach yëpp barki Serigne Touba Mbacke Jean Baptiste jël xaalis bu bëri jox ma ko per xam nga di sant waa NCB ñëpp waa Grand Dakar su ma jógee per ñëpp dañuy jóg topp sama ginnaaw tay xoolal grand combat bi sax ëpplewu ma lu mobilisé waaw. léegi ñan nga soxla. samay morom kii doomu jaamagan na ñëw ñu bëre xay sara na ñëw ñu bëre déranger bu jaamagan na ñëw ñu bëri papa bari bari ma ak moom combat la defu fi lu deful. wóor na Serigne Touba kan mais am na combat. waaw bu génnee si combat bi na ñëw ñu bëre bu dul moom tamit day ñeena parce que ay xale lan rek. waaw waaw waaw bëre lañ fi nekkal. xam nga te mënaguñ dara sama adversaire tamit maa ngi koy félicité bu baax te xam ne li mu ñàkk nekkul yaa fuusam suñ borom moo ma xay moo ma may xañ ko. kan sniper sniper waaw. yàlla suñ borom moo ko dogalee noonu di encouragé kii tamit Reug Reug waaw di wax xalil mu gën a yokkaat sama benn yaay depuis Angleterre sama yaay Marème. maa ngi koy sant bu baax xaalis bu bëri la ma yóbbante dim koor Diouf bu Pikol waaw xaalis bëri la yëkkati may ma per ñi topp sama ginaaw ñoo bëri wóor na Serigne Touba Mbacke moo tax def erreur ci lam waratuma waaw di santaat waa Grand Dakar ñëpp xam ñoom Grand Tidiane xam nga képp koo xamante ni yaa ngi jàpp samay combat daal mbégaat mu ngi lay sant bu baax sama mag ji Mamadi Ndiaye lu na la daj ci combat bi mook Bébé Sos Mamadi Ndiaye mbër Mamadi Ndiaye day sonn ci samay combat guddeeg bëccëg lu mu yor def ko ci naar naar bu njaañ day sonn ci sama combat yi trop père Sall Ndeye Ngler ñoom bébé sos wallaahi dañuy sonn ci sama ay combat waaw di ñaanal sama coach yëpp ñoom père mbay Mbaye Faye xam nga bi nu yor Sall ba maa ngi koy ñaanal bu baax moom sonn na ci combat bi baax depuis booba léegi wallaahi mooy lool waaw père di wax na ñëw ñu bëri nag jërëjëf ah. merci Pam tamit sama gars yi ak ñoom sóoraale bépp mbër bu nekk Grand Dakar laa maa ngi lay ñaanal boo bëree suñu borom defal la waaw di ñaanal Pam mu am combat moo sóoraale ak yeneen gars yi amagut combat yëpp. merci yow tamit Philippe chaque jour dañuy déglu say interview yow ak Lamine parce que Serigne Touba Mbacké waaw di ci jàng lu bëri waaw surtout émission bi ngeen doon def eh, fii DTV wallaay dañuy déglu sa ay kàddu bu baax di ko jëfee te loolu amuñu sa suñ borom moo am sa fay yàlla na la fay waaw jërëjëf waxtaan na la kooku lay nuyu. père maa lay fay père naka jàmm ji. mais eh, coow li dafa bari am nga combat wala amoo. xanaa ah, après koor gi rek. après koor gi après koor gi waaw. yaa ngi waaj daal. waaw maa ngi waaj. mais kan lañ la wax. instant yii nii waxaguñ ma kenn. man daal ah. caatu ngéwël laa soxla. ah caatu ngéwël. caatu ngéwël. caatu ngéwël waaw. loolu combat. combat bu neex la. li wax supporter yi. amoon na wax trop. ah foofu rek dinañ wax nañu pare rek. waaw Ouskara mu ngi pare borom Grand rek jàmm maa lay nuyu. Père Balla ziar leer. sëriñ bi sëñ Babacar ñun moom la ñu la ñu nekk suñu bopp. mais lu amagoo combat ba léegi. tamit quoi ndax buñ bëree bëlee gars yi ñu may wax war sama adversaire laa bëgg bëre ak waaw. Ah ma kooku ba léegi ñu bëgg bëreel mooy lu mel ni nu koy waxee sax armée léegi sax bañoon naa bu ñëwee amul problème. soog nga ko waaw am na bu ñëwee ma bëreel. Ah, maa xamante aller-retour tëkku ma ko nag moo ma tëkku keroog bi garaawal bu ñëwee ma loolu ñu mi lay dégg. waaw jàmm mais sa kàddu gu mbuñu Kalbour mooy ma sant waa Segna rek waa ak waa Yëmbal ak waa moom Sëreen yëpp yëpp yëpp yëpp waa marché bu bees ñëpp bàyyiwuma kenn ñaan sama papa yàlla jug fu mu tëdd sama ñaan ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp dem pare sama combat après Korité bu ñu neexee yàlla incha allah. waaw jërëjëf. sa kaddu gu mujj. di sant ñëpp di sant grand yëpp sant set di encouragé euh, booy grand yi si am ñu leen di bu baax a baax a baax di kontaan ci ndam yi. mais temps da ay victoire. grand bo grand daa xew si ja lamb lamb séeréer mënu faa nekk adressé seconde nekk ba grand des si ginnaaw ndax lamb foofu la ko ko gars yi di jàngee moo tax grand dafa bu baax a baax baax a baax waaw. di bébé mbër. looy compter. Père Palla man dama xamul lu a daanoo. mais Lamine. champion bi nee na ñu indil ko combat bi. kii mooy frontière. frontière ngoogu combat sànq bi nga bëgg a seetaan. mi ngi dégg combat baa ngi noonu. combat baa ngi noonu. mi ngi noonu. ngi noonu tànk bi mu fi bàyyi tànk boobu la kot action buñ ko defee ci biir géew léegi yow lan mooy problème bi da nga deful quatre appuis wala arbitre bi dafa sifflé. Eh, man bu may teg sama tànk ci ta ci saako bi la arbitre bi di sifflé barki alxuraan ñu may gëstu xool xool xool ba bu ba bu ñu dem ci bi mu ba bu ñu dem ci ginnaaw di bëre arbitre bi mu ngi sifflé pour ñu bàyyante ndax man damaa jéggi kanam dagal seizième bi dama koo jéggi ci laa ko jéggee di daw di daw di wër pour pour bi instant bi gis na may daw di wër pour mu bàyyi ma ma ñëwaat ma a benn arbitre bi mi ngi naan ko jox ko victoire mais arbitre nañ bàyyi bu ñu yàqatee ñibbi bu ñu bëggee ñibbi ñu yàq combat bëri yi quoi ndax ñun combat di def xaalis bu bëri di teg ay coono yu métti yow lii bu ñu woowaatoon ñu bëre sax day gën a neex ndax maa ngi moom ay bërekat lañ ndax man moom moom mi ngi jàpp man jàpp ma maa ngi xool fu ma sama loxo ndajoor fu mu dafa jàpp ci diggante moom may jéem a jàppale ci la ma tegalee 16 ma jéggi tegal 16 bi ñu nekk ci biti arbitre bi ñëw joxe ci loolu victoire non nañ bàyyi bu ñu bëggee ñibbi di yàq làmb yi quoi dañ ni ñun dañuy def làmb yi ci def xaalis xaalis bu bëri lañ ciy def donte mbëri donte nag du ñooy mbëri mag mais nañu ngemboo xaalis bu sax xam tey nit lu ñu may lu ñu jàppale ñu def ko ci làmb yi war xam ne ñu jaaduwul boo abi dañuy bàyyi xel jërëjëf baba toogal ni kii du beer maa lay nuyu Bakary waa père borom combat bu rëy maa ngi lay fay père di la ziar cey Gris ah, doomu dangu doomu dangu kii moo tax a kaawute ji làmb ak doomu daangu incha allah. jërëjëf sa kàddu gu mujj. waa di sant ñëpp di sant aussi waa Lutte TV di teg cant gi di ko teg ci loxo Beuz di ko sant bu baax di ko gërëm di gërëm aussi équipe bi yëpp li ñuy jàppee ci liggéey yaaram aar gis nañ ko sant nañ leen gërëm nañ leen. donc di la sant aussi bu baax waaw loolu dafa leer. loolu dafa leer yaram aar Lutte TV la bokk donc di leen sant bu baax di leen gërëm di xam ni carrément liggéey bi tàmbaliwaat na yaram aar Lutte TV partenariat buy sax la. di la sant aussi Père Pala di la sant bu baax a baax di sant équipe Yaram Aar bi yëpp ki ci gën a ndaw ba ki ci gën a mag ñu leen di sant bu baax di féliciter aussi <laughs> mbër mi waaw di sant di di sant di aussi mbër mi Vieux Ngolo mbër ko ñaanal yàlla daanaan la defal ko ne waaw wane na ko tey wane na ko di encourager frontière bu baax a baax di ko ñaanal yàlla bu amee yeneen combat yàlla defal ko ndam aussi donc di ko encourager bu baax merci beaucoup Père ah Père. ñu ngi lay fay bu baax baax. mais gis lu ma gën gis si laam. daan ba pare lu ma saam lu ma saam. lu waral loo. non c'est que xam nga dama di góor. te lu ñu waxante si plateau bi dama bëgg ndax booy daf ma woo si guerre xam nga li ma la wax. pour man day guerre. mais bu nekkoon day ñu wane ko bi mooy daw suñu yaram. ba ñu mu indoon de fenn ndax ñu suñu dina yàgg ne. non man bëreegu ma ndax daa am si lu ma jugee quoi ma def benn erreur xam nga ma sama koñ ñu mel ni kom man maa daan barki sëñ Bamba lu ne dégg naa ko vieux ngoloom da nga daanu mel ni yaa daan affaire bi gën ma soke ma xam ne man caaxaan waruma man su ma caaxaan booy maa man bi mooy sama troisième combat maa ngi sant nag sama papa bu baax a baax a baax sama papa ngi nii xale bu ndaw la gerte moo nekk nii moom papam waaw lii rafet na torop ndax doom booy jur léegi nag lan moo ne sa kanam. ne sama kanam kay man nañ ma jox. papa ci supporter la dem toog papa ci ci supporter la dem toog. bilaay père man ma jox gars yi. barki sëñ Ba père man dama tardé père ma jugee père man dama war a père grand a ko war a téye lu ma gën a def mbër Lamine Bara si la bokk dama lamb mii grand bi nii sama grand sama lépp la di sama maara di sama lépp dañ toog maa ma siruku mu ne ma booy gis naa la contact boo mayewul poxotaan bu fël sa laax booy yàlla mën ma xam ne lu moo dëgg la mu jàppale ma tey tax barki sëñ ba moo maara bilaay taalaay ndax sonn nañu fayekuñ ma dërëm walaay dërëm fayekuñ ma ko dërëm fayekuñ ma ko barki mais maa ngi leen di sant di leen gërëm mais yàlla baax na père ma du ma baadoo la père père ñun ay gor lañu père père ñu bu ñu xasee ba jàpp rek jàpp lañ di gërëm Nandi Fall di gërëm Zarko di gërëm ñoom Baye Tafa ak mboolem ñu may jàppale tamit si lamb yi sama waa koñ ñëpp maa ngi leen di bégee bilaay walaay ma fiyaa mbéj bi di bégee tamit George Manu Manu maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax ndax dafa yàq xaalisam ak Malal ñoom Moussa xama Batika tamit ñoom George ñoom Mbaalo DG bi ñoom ñëpp maa leen kontaan naa si ñoom Badara Kebe suñu président nga soxla xam nga ak ah, ñoom ba dafa sama lonko bi balaa may may saa man duma man man ay jox leen ma diw yéen amateur yi xool xool la mooy làmb ñu jox ñu ko loolu lay wax bilaay yàlla baax na yàlla baax na euh, sa kàddu gu mujj ah sa kàddu maa ngi leen sant yéen ñëpp di masawu coono bii ndax seen liggéey yàlla na barke bu baax a baax yàlla na yàlla taxaw bu baax a baax. ay ñoom DG Ibra Seck tamit ñoom Ousmane Ndiaye ñu ngi leen di bu baax a baax ndax na nañ si ñun. ñoom Marème Dieng ñoom ñëpp sonn nañ si ñoom. barke sëñ Bamba ndax dañ ñuy jàppale. bilaay walaay taalaay ñoom Idi Bousso Fesal famille. maa ngi gërëm bu jërëjëf champion. ak Khalil Khalilullah. jërëjëf merci. jërëjëf champion jërëjëf doy na doy na. Bayta Ba la waa Lamine kontaan rek ginnaaw bi ñu sant yàlla di leen sant ñaari waajur di sant yàlla bu baax a baax lii dañ ko wër tey yàlla may ñu ko dañ koy sant bu wér kii xale ndaw la bi mooy troisième combat am nu ma bëgg te muy dem bay bëre roi des arènes. écran bi nga jàkkaarloo. waaw père lii dafa rafet. mu ngi ci kaw mu ngi ci kaw waaw mu ngi ci kaw waaw mu xaasi. père di gërëm jël tamit. ñu ngi sant ñëpp nag sama mbokk jelmaan yi ñoom Badara lu ma wax moo tax ma gën a am lu ma ne yow da ngaa daw kaso ñemewoo kaso ñoo si làmb yi per ñan natu ku ne lay dal barki alxuraani karim ñi gën si bi. lii daal la ñu ko topp ndax ci kawam mu koy dox ci kawam ndax lim ci yow jërëjëf. lu may dënk ku bëgg a gis fii combat fii da ngay teel a xool boo dul xool doo gaaw gi jëlee merci jërëjëf grand kon nag nay xool grand combat moo ci des di nuyu les sénégalais de la diaspora di leen ñaanal jàmm di nuyu waa groupe Lutte TV tudd yaay Sarr maa ngi lay bëggee di la ziar Omzo ak ñoom Serigne Ndiour bu Osod as Xaadim Bamba caatu li TV di bis mu rëy bu baax a baax góor gi Njaay waaye moo Njaay directeur aussi mais dox ci diggante ñaari xale yoo xamante ni combat bu mën a gaaw la buñ xeexee moytul dóor mu daan doomu Serigne Njaay bi day xeex rek di mu ngi noonu mooy vite fait Mansour bu parcelle maa ngi lay bége fëgale bu ngor borom le 9. lamb ju am na fii le mars diggante fëgale bu ngor ak jeex jàmm. ci ànd ak Elimane Lo. Elimane Lo benn. mars aussi. le mars. Bour Sine Blindé. waaw ah, lamb ju rëy googu. ah. Blindé mooy borom kaawo yi waaw laay laay nee na victoire am yëpp ay kaawo na le waaye bu leen ko fàttee ndeysaan petit promoteur a noonu wala tëgg dimanche bi di ñëw diggante Siteu bu Naaru Sogas mu ngi noonu ñu ci ànd ak petit gis nga ko affiche baa ngi noonu war a te fii lay amee dimanche arène nationale doomu ndayu Fall Fall Touba Galzo 94 yéeme na de combat baa ngi noonu Siteu bu Naaru Fokaas organe bu far bu jar maa ngi lay bëgg di la ziar. bës yéex naa ñëw de. gëj na ñoo gis plateau bi de. mais loolu amul solo. mais loolu waaw rëbb ca coow la. boo ca maa la ko wax. le papa de. kan kan. li le Papa ñaar ñi ay Tarkinda lañ. Père mooy Tarkinda. ah mooy papa nuyu ci Amérique. kan la. Seck Seck. man. Seck bi doon ànd ak Siteu. Ah, nga Amérique. waaw ñu ngi koy nuyu bu baax. anamu. yee gars yi xam nañu yoon wi de. Dumbuya Dumbuya. waaw magu Siteu bi. moom it dem na. dem na. maanaam Siteu manqué na trop pion. non Siteu. Siteu dafa bokk ci xale yi nga xam ni dañu mën social. day day jàppale ñu ko di jàppale ñi ñuy àndal. waaw loolu c'est à saluer. bi sifflé na grand combat arbitre bi de. arbitre sifflé na grand combat bi. arbitre sifflé na ñu ngi léewtoo de. ginnaaw mooy kan. vite fait moom mooy vite fait. cey eh, eh. Mor kii. nda. daa bëri pexe. daanaka diggante vite fait la. ak Cheikh Bary Cheikh Bary mu ngi koy sëkkatal. Cheikh Bary vite fait. Cheikh Bary. Cheikh Bary ni mu def nii nu mu tudd li mu def nii. ni mu def nii. Cheikh Bary moom ngeen jàkkaar lool moom ak Vite Paix la arbitre nee ko bëreel ñoom ñaar a ah. arbitre ko taxawal dëggal sa ah, bopp ñu ngi eh, raak eh. raak xeex Vite Paix Cheikh Vite Paix Cheikh Vite Paix Cheikh dóor na ko mu ah, daanu dóor na ko mu daanu dóor na ko mu daanu door na ko daal bi kan la kee doomu Serigne Ndiaye bi quatrième kaawoo ma noonu door na ko mu daanu laa ilaha illallah ah, door na ko mu jaaxaan lii mooy lan baay bi daa mënoon xeex door na ko mu jaaxaan ah mën naa daan kenn ko ne fii door na ko mu daanu def na jaloore ju rëy laa ilaha illallah vite moo daan baare baare mooy lu leen vite fait mi day doore moo door départ bi booy xool kii ko gis nga xoolal door na ko mu daanu xoolal. da ko gën a bu mag ba ngoog ko mooy ñoom ñaar ñëpp dañoo engagé wu ci xeex mais vite fait fu ko gën a ba pare fi mu taxaw di xeex dafa taxawin ki nga xam ne mooy baari baari. da koo gën a baax taxawee da koo gën a baax nu mu taxawee. Ah. parce que assise dafa am ci combat booy bëre da ngay am assise. bu xeex jógee nga mën a xeex bu fayu jotee nga mën a fayu. waaye bu ñu la dóoree yow miy toor bu ñu fayoo mën ngaa yegg ci suuf. comme soo bu garga maa ngi lay béggee bu baax a baax di nuyu Serigne jur Mor Diouf ngi noonu bari pexe. waaw non kii la boo xam ne bari pexe ngi ni xale la boo xam ne sponsor dañ ko war a jàppale. moom poos lay bañ a gis poos dat dat lay a gis dat dat dat. waaye day xale boo xamante ni. bi mu ñëwee ci làmb ba léegi innovation waaw kooku nag dañ ko war a jàppale. waaw kooku dañ jàppale. sponsor dañ ci a dugal seen loxo. waaw xale bu ñëw di def lu neex xoolal làmb tey. waaw. a yegg. tey ji nee naa ko am nga. jiw bu combat yëpp a neex. waaw sant yàlla man li sant yàlla xaw ma bénéfice bi waaye daal. xam naa ni Mor. waaw dañ ko war a ndax day jooy rek neeku na sant. waa day xale di doog a ñëw te tegagul fenn loxoom. waaw nay sant nag na ko réew mi teg loxo. waaw ko réew mi teg loxo. waaw na ko réew. ndax mu lay teg loxo. ndax mu ñuy teg loxo. mais réew mi teg leen loxo Mor. borom la 18 ngoog petit promoteur. borom bés bu mag bi borom le 20. le 20 mai. le borom le 20 mai Mor kii. Mor Baye Fall petit ngi petit petit bateau. petit looy waajal. non dimanche maa woo Sénégal gëpp ci. petit kal. parce que gëm naa ne. waaw dimanche dama war lampeer. waaw petit bateau kal. petit bateau grand kal may sargal Amadou Ba. waaw Amadou Ba bi nga xam ne jox bi. waaw may sargal Amadou Ba nat. dimanche incha allah. di sargal sama xarit. ku ci mel Mamadou Sidibé nekk fële ci di jàppale seen i Grand Yoff ci woo Sénégal bi félicité Mor Diouf borom Diouf production ci liggéey bu rafet liggéey liggéey mais kenn du bu mu yor ma tekki ko ko wane na xaar xaar xaar xaar wane na lamb tey lamb tey mbër yu mag yi moomuñu du cent millions deux cent millions mais liggéey la boo xam ne promoteur ndaw yi ñoo nga def parce que dunoo tarbiyu lamb dunoo liggéey si lamb dem tey doo ko ñëw moo tax dem liggéey si lamb incha allah maa ngi rendez di sargal sama xarit waaw Fallou Touba waaw moo nay moo fere tegal bu ngoy maa ngi koy Fallou ñu ngi koy xaar Fallou Fallou Touba Fallou est-ce que dina ñëw moom ci réew mi mais day gars yi nee na du ñëw non day ñëw kay li loolu Fallou ñu ngi lay xaar fii bu soobee yàlla ci plateau Lutte TV Fallou Fallou Touba ndeysaan gazo karafet Sénégal gépp ak lu lam ay xaritam lañu parce que nit ku baax nit ko yof la te gëm naa ne perta la dina nekk sa xarit jërëjëf loolu am solo waaye Mor Diouf a ngi nii Mor Diouf borom Diouf yi production mais Mor na mu naa la mbaa yaa ngi ci jàmm. tey sama xarit bi Lamine maa ngi lay ziar bu baax. Mor yaa bari pexe. waa di la remercier wax dëgg yàlla xeebaloo ma bis bi munoon naa tëgg journée des espoirs bu mel ni nga xeebal ma bis mais boo bële yaa ngi ànd ak man si liggéey bi ça veut dire ne liggéey rek moo am solo parce que ñun ñi ñuy boole xam na leen amaana. mën nañ gars yi mën nañ nga bañ a xam si kaw mais ñun suñu tëggee rek dafa war a neex parce que ay amateuru di boole ñin war a boole tey soo xoolee gala bi combat yëpp ñoo neex ay jéelu yu rafet a am ça veut xale yi euh, ñooy avenir u làmb faw ñu teg leen loxo di wax comme per Pala ni mu ko waxee rek nanu sponsors yi ak partenaire yi gën a taxaw parce que suñ vision si làmb wax dëgg yàlla dépassé na lii mais des fois moyen yi moo dul demee noonu mais xam naa ne suñu tegee loxo dëgg ah, làmb dinañ ko yóbbu fu kawee kawee c'est pas évident tey appel am lépp am stade bi mel nii loolu liggéey moo am solo ak ak final bi tey la wala suba. tey mooy final bi final coupe d'Afrique tamit. boo jël non man seetaan na ko moom. na ko Nigéria ji. waaw waaw. waaw di ñaanal petit nag dimanche. mu am réussite 100 pour cent parce que euh, Lamine lamb dafa métti te tamit lamb foofu million la wax dëgg yàlla des fois da ngay dugg da ngay wéet mais suñ borom des fois mooy ñëw ak ay dogalam teg si loxo moo tax dañ koy ñaanal lépp lu mu bëgg si bis bi suñ yàlla ko suñu borom yombal mu am si réussite à 100 pour cent moom petit production. waaw di gërëmaat tamit ñëpp képp koo xam ne dugal nga sa loxo tey si làmb ji ñu ngi lay gërëm bu baax waaw di gërëm As Cissé amaane mënoon nañ ko def journée bu mag mais da koo xaaj def ko ñaari journée yenn booy mu programmé leen mois de mai yenn booy mu bëri loolu leen tey. mois de mai da journée. mois de mai mën naa ne combat yi daanaka grand combat spécial ak huitième bee taxawagul mais sept combat yi si kaw yëpp as taxawal na ko ba pare. ban ak Juufi production ak Juufi production ban jox booy avance ba pare. Euh, lenn lañ doon xaar rek journée bi passé ñu finaliser grand combat bi euh, mën a jublu si liggéey boobu parce que as mënoon na song ay affiches yu mag mais moo ne ma nan tëgg journée des espoirs def ko ñaari poule poule A bi tey la bëre poule B bi mooy ñëw mois de mais incha allah di wax sénégalais yi ñu ñaanal. di di remercier tamit sam frère Fallou Ndiaye wax dëgg yàlla lépp lu ma nekk lu ne da siy nekk di si sonn euh, bëgg sama réussite moo tax dama koy remercier bu baax a baax. di remercier tamit euh, sama frère yi nekk jaspora bi ku si mel ne Alassane Diouf sama grand frère. yéen ñi commentaire wax leen ma ku am un Nigéria mu am un wala Côte d'Ivoire. waaw di gërëm tamit Fallou Diouf di gërëm Elimane sama rakk bi nekk États-Unis di gërëm Khadim Diouf sama mag bi nekk tamit Italie sama frère yi nekk si diaspora bi yëpp ñu ngi leen di gërëm di gërëm sama frère yi fi nekk. waaw lan moo tax booy dugg ci gox. doo fa yem doo jël ñaari mbër rek yem fa mais mën nga faa jël 4 mbër ba 5 mbër lan moo tax loolu damay dégg parfois ñu naan da ngay ñem fii ñem fii ñem fee bu ko defee supporter yi gën a sakkan. waaw loolu soo xaw xamul làmb rek des fois mooy def loolu ne benn gox bu nekk benn mbër la fay jël mais ñun ñu ni tànn si gox wax dëgg yàlla ay phénomène lañ te pare nekk xale yoo xam dañoo bëgg am yéene si ñun duñu jàppale tey soo xoolee Grand Yoff am na 5 mbër yu fa jógee xoolee tribune bi ñu ko def cat ba cat dañ koo duy tamit euh, si cinq mbër yi am na ñett ñoo xam ne jot nañ seen avance seen deuxième journée jotoon nañ ko bu yàgg adversaire bi lañ doon xaar ak ñu bëre tey di félicité tamit euh, vite fait ñu ngi koy félicité encouragé Cheikh baari Cheikh baari wax dëgg yàlla moom it wane na jom wane na fulla liggéey na xëy na bi mu mu fi waaw bi mu fi ñoom ñëpp samay boolem bi mu fiy kaawa la amoon tey suñ ko kaawa tamit na santaat yàlla liggéey